seen émission bi di Kajel koor gi ci Fall xam ngeen ni samedi spécial Mame Cheikh Ibrahima Fall waye bu tay bi nak xam ngeen ni dafa am ben touche bu particulière ndax nak xam ngeen ni moy goudik ñax fukki fon koor gi gis ngeen eh, Seydina Omar Asadul Khadim da melni ni sëñ Ndiassé da ka pikir ci ci wolofalu Cheikh Moussa Ka googee rek mu mu mu mu mu tambali fu am solo wax deug yalla yaangi mm-hmm. don eh, yaangi don ngi uh, nak lu jëm si bisub ñaar fu bisub ñaar fu fani fofu la laa këfee kàddu gi yaakaar naa. waaw seigne Aliou. dama la koy delo rek. waaw <laughs> kon de xana nu continuer fofu rek sof fiñ ñu tolloon. waaw mooy ñu ngi ci guddik ñaar fukki fan ci wéru koor. xam nga seigne Aliou wéru koor. yàlla da koo may sëñ Touba daa wax ne sax ba ba ñuy tàbbi aljanna jànn aljanna joojee ñuy wax firdaws nee na yàlla dey wéy di ma ko jox waaye ci weeru koor it la yàlla tàggatale sëñ Touba waa ahlu badrin inna alladina shaahidu fi wa jahadu kulla nufusin mudriki naaw ila ziyaarati fii ramadan zahi li wàcci hëba bi fayadaan sëñ bi nee na weeru koor la ma waa ahlu badrin siyaar si ca bayti دار القدوس ابو بكر نما من ميلا ابو بكر عمر نما من ميلا عمر عثمان نما من ميلا عثمان علي نما من ميلا علي ب 313 بيرسون يمات لولو سيغ بي كو واخ واي نانا تي ويرو كور لاكو يالا نجهك واني رسول الله كل زمان لا ازال اطلب لقاءه وارتجي وارقب كبر ما عزبت يا عزيز منكم ما هو عليك بعزيز daa wax ne mosumaa deñ di sàkku ci yàlla mu wan ma rasulullah mu tëmatic waaye nee na 1311 bi gàddaay ga amee junni at ak ñetti téeméer ak fukki at ak benn sëñ bi nee na muy ay sasin ci laay njëkk a gise gisee rasulullah muqaabala mu musaafaha te loolu ci weeru koor la weeru koor sëñ tubaa nee na ci la ma yàlla may alquran ilayya rabbi salabal qur'ana fi ramadaani fa sukuuri aana sëñ bi nee na ci weeru koor la ma yàlla may alquranul karim alquran jooju nga xam ne tam lii kan ya duum looloo waral weeru koor di di di di di léppi sëñ Tuubaa ajran kabiran wa thawaaban wa jaza wal waxdu lii fii ramadaana na jasa wirdul maquus mooy wal waxdu lii wirdul maquus min allaahi bi waasitati rasul ci weeru koor la ko yàlla jox sëñ Tuubaa te jibril la ànd ak rasulullahi andi ko mu baasaratan bañ laylatul qadree ba ca suba ga di ajjuma waxtu takkusaan sëñ bii jàng alquran ba yàgg mu wóoru sëñ Amsatu Jaxate di yaay sëñ Saaliw Amsatu mu ne Mbàkke mu ne ko dama doon ñaan sama borom ci géej gi lu ma mayoon te ba léegi gisuma ko ma bëgg nga dugg te ñaanal ma loolee mu ma waxoon mu jox ma ko sëñ Amsatu yegg suuf ni jaayi sëñ Saaliw ne ko am ah, Mbàkke xanaa nga dimbili nu yow mii di man a ñaan sa borom ba mu nangu ko nga ñaanal nu nun Amsatu nu man a ñaan lum nu nangul ba noppi ñu door a dugg ñaan ko gis nga sëñ Tuubaa may na sëñ Amsatu lu mu ñaanati yàlla mu defal ko ko ngir loola sëñ am satu nee na ñu tàbbi waxtu tisbaar la ma ko sëñ bi wax tàkkusaan gi waaj sëñ bi takk ndigam di jàng alquran ca kaw di ko taj tajwid mbooleem gàddi naar yi wër fi mu nekkoon di sarsaale ñëpp wër sëñ bi ndax boobu mosuñoo dégg laf su magaari ji muy jànge alquran mosuñu ko dégg moo tax ma ne yonent yàlla de miñ ne woon moo gën a neex baat sëñ tubaa ko dàq baat alquran laa wax waaye nee na ba tàkkusaan ji duggee rek la ko yàlla jox ndigalul na daje jeeg rasulullaahi ca garab gële nga xam ne daa wàcc gàdd gi dox ba ca garab ga sëñ am nee na mu toog ba yàgg ñu seen ko mu taxaw waaye kenn topp ko nag déet bu gàtt ñu seen ko muy waaxu di ñëw leer gi gand ko mu yëg si benn naar bu ñuy wax Muhammad la sëñ bi njëkk a woolu mu ñëw mu ne ko gis naa sa sa maam rasulullahi yaqasatan laa manaa man jox na ma wirdul maquus bi waasitati rasul wirdu woo xam ne saadatan la saqawatan baxdaha wér weeru koor la ko sëñ bi am kon xam nga weeru koor ci la lépp daje weeru koor ci la sëñ bi sos yoonu murit kon day mel ni weeru koor ci la yàlla dajaleel sëñ Tuubaa lépp waaye weeru koor nag ci la maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiina baabullaahi baabul jannati ñëw joxe si boppam ci si Amadou Bamba ngir gindinu raasi ko baabullaahi baabul jannati raasi ko ngir jox ko say pexe moo pexe Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ Tubaa lu mu war a doona ak taalibe sëñ Tubaa kenn tëwu ko Alioune Badara ngeen baal ma sëñ Tubaa kenn tëwu ko wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi ji yàlla moom da koo rafaatale sëñ Tubaa kenn tëwu ko kenn tëwu ko waaye dama ne Cheikh ñun la bëggoon a xettali ndeke waaye dikkutoon ngir am rapport ak sëñ bi déedéet daa dikkoon ngir xettali ñooñ sëñ bi wan leen nu ñuy toppe sëriñ bi moo tax dégg nga sëñ Ndiassé bayit yi mu wax léegi sëñ Moussa Ka ne bari na ko toog fi moom sëñ bi di ko xool mu di ko xool Cheikh Ibra nee na yow ma mee toog fa moom di ko xool gisoo ko mën mii maay ki ko xool maa ki ko gis bari waa na ku ko jege lool tey ki ko sori Cheikh Ibra nee na mën mii maay ki ko jege ndax yàlla daa am alaaka saxsiya yu mu boole sëñ bi ak Cheikh Ibrahima Fall sëñ Mourou Ablaye nu nettali ca waxtaanu Mouride Sadix doomi sëñ laay Fall ndara mooy wéyjuru sëñ Soxna Koudia Fall maa ngi koy nuyu bu baax Fall mu nga ca Bambey ak sëñ Cheikh Bintu ñoo ñooy samay doomi ndey lan seen yaay ak sama ndey ñoo bokk baay loolu la yàlla dogal sama bàyyi seen nijaay waaye ma jaay lépp nag jënde ko doon taalibe ci ñoom ngir Cheikh Ibrahima Fall foofa lañ may gëne ndax ku bokk moom da ngay gën ku bokkut ak moom loolu yàllaa ko def mooy fadlullahi yuutihi ma yasa wallahu sul fadlul azim sëñ Mourou Ablaye nee na bi Cheikh Ibra Fall départ tey ba Ndakaar googee gën a siiw ci wax ne fa la bàyyi koo woon jëm ci sëriñ bi te gis sëñ aadama ak sëñ maxtaa Touré jaayanteeg ñoom ci diggante loxoy sëñ Adama ngir mujj gi nga ko mujj ci sëñ tubaa ak leerug sëñ Touba gi balle ci ñoom daa am communication bu riis bu ca xew da ngeen may xeeñ ngetu ka ngeen bàyyi koo ci moom. sëñ aadama ne ko nit nan lay xeeñe xetuk nit sëñ aadama mbaabu gay magi sëñ ma baaboo cheikh bi ne ah doom ah moo waxoon ne ku sëñ bamba maa mag sëñ mu dab laaya ko wax sama maam mooy siraajan muniiran sëñ mu dab laaya ko wax cheikh dafa nee ne ku dul sëñ bamba maa la mag doom moo waral mu ne ah doom bu fekkoon ne ay jigéen ngeen yoon joxe woon ci kër may leen ay boroom kër ma ne seen joxe googee am na lu ca xew ba day mel ne wan ngeen aw lool ba toll ci ay weer xamee na ko leeru yàlla gaa tax lola waral mo ne len yene ngi may xegn ngatu ki ngeen bayiko ko ci lerga gindiku baa tax yalla mi ko tektal señ bi mokoy tektal leer ga ak ban wami banam ba xamé leeruk señ bi waaye jaar-jaar yi munta ñak ndax jaar-jaar munta ñak ci tariq lola waral fi mu jaar yep mu jaar fa waaye kero bi ñu duggee Mbàkke Kajoor fukki fan ak juroom ñet ñene ñu ne fukki fan ak juroom ñaar Cheikh Ibrahima Fall dem na mbacké kadior ñetti fan ñaar fukki fan ñew du bisub ñaar fukki fan mi la dem mbacké kadior de dedet li wér mooy dem na fa fukki fan ak juróom-ñaar seigne basiro ñu wax ci minanul baqil qadim fi shirati shaykhil qadim way jur Cheikh Amadul Muntaqa nee ñetti fan yi jitu ñaar fukki fan yi bis bu seigne bi xeye dana génn ànd ak shaykh Ibra dem ba sori magni mu wax waxin waw ken du xam lañu wax ba del ci wat ci mbolo mi waye ñaar fukki lu fan bi nak le mbir ma leer nak ci nopi ñep ñu xam ne ñaar ñi liñ doon beru nit ñi diko wax li la won mooy ak mu al mubaayaatul kubra jaayante ndeke yoonu murit munta ñàkk jaayante jaayanteeg yoonu murit ci mboolem murit bu jaayante Cheikh Ibra Fall ko andi ma wax la bis ba ndax mu leer ci san ñaar fukki fan ci weeru koor bisub di beer la mbir ma leer Cheikh Ibra moo rëy pexe billaahi ma wax la bis ba ndax mu leer san ñaar fukki fan ci weeru koor bisub di beer la mbir ma leer Cheikh Ibrahima rëy pexe wallaay mas nay xibaar ak njëbbuloom bay wax ni yàlla mi ko mom moko ni bàmba mo lo moom raasi ko jox ko say pexet tetal ko yon wa amuri di aw baraw pexam xamari ba am ngërëm bari murid te dootu ree di tex texi wax nañ ni tuuti kon mu dem fekk sëriñ ba lëmbiiram ba kenn du mu si baatinam lu dul ca bis ba nuy texe mm-hmm. Cheikh Ibra Fall amul moroom sàkk na bari ايتيمام ليرال نبينكو مكسوم فال لو يقدوت نخ نخ شيخ برفال يو شي كل قم البفات يوم الخيام دو تبي الجنة يا جروي يا جرجوي cey àdduna mën a loolu mooy la waral loolu mooy yaa gis la buur làqoon ca lawhul mahfuuz ak lawhul maknuun yow faal taloo noos maanaam buñ la waxee ki gën ci gaa yi yépp nag te gën a jàmbaare noteel turu Cheikh Ibra Fall te bind ko doo ci am gàcce déedéet la waral loolu mooy daa ñëw indaale léppam nag te bàyyiwul dara fam bàyyi ko woon loolu waa njare xam nañ ko ci ak jaayanteem waaye dama ne Cheikh Ibra wax ne Jibril la ko jàngal ak njébbal sëñ Modou Abdoulaye nettali de nee na Cheikh Ibra Fall sama maam nee na Jibril la ko jàngal ak njébbal kon booba la wuuteeg gaa yi ak njébbal moom nee na Jibril ci boppam moo ànd ak moom nu tenkem ba jub sëriñ bi ci ñaar fukki fan ci jaayante googu nee na Jibril raam Cheikh Ibra nee na ma raam Jibril jox loxo sëriñ bi foon ab loxoom taf ko ci jëm loolu ku koy barkeelooti na ngay bàyyi xel Cheikh Ibra kuñ koy defalati itam nga toog ci kaw na ngay bàyyi xel Cheikh Ibra Fall damaa wax ne kilifa gu toog ci kaw aw nit toog ci suuf jat seeni doq su mi seeni mbaxana raam jox la addiya nangu wunoo siggi rikk waay bul sàjj xef Cheikh Ibra Fall mooy ki ko indi kër sëñ Touba moo jaayanteeg sëriñ bi ci raam jox ko alalam jaayanteeg sëriñ bi ci di ko liggéeyal léggéey gu sax nag xam nga inna allazina saarahu fii xidmati falahumu diyaara wastal janna waqdi xawaaij alladina daamu fi qidmati waxëb la ko maaraamu alali Cheikh Ibra Fall la ndax moo ubbi buntub lëggéeyal seigne Touba ci bir keur seigne bi daan na Jibril ci bopam mo jaayante ak seigne bi ci ne Ibra Fall ne ko joxna la sama bop aduna ak alakhirah Cheikh Ibra nee na ma baamu lolé Jibril waxon ne ko loma ma digal dinaa ko def Cheikh Ibra nee na ma ne bi loma ma digal danaa ko def muy lu yes pek nak ci ay nopp kero nee na Jibril tek ne ko ne ko loma tere dina ko baye Cheikh Ibra nee na sëñ yaaram keroog dama ne tek waxumako nee ñaari yoon jibril soñu mako mané tek ne ñetti yoon mané jibril duma ko wax ba may leeral man ci sama degginu bop dama ne ka doon jàngale ak njébbal mujj nañ ko far di ko ak njébbal muy jibril Cheikh ibrahim Fall mo ne jibril mom du wax seigne touba ne ko lo ma téré dina ko bayyi mom du wax lolu jibril ne ko lutax mu ne ko ah kay Dama jaayantee sax ci lim ma digal kon wu ma dara ca lam may téré kon duma wax lo ma téré dina ko bayyi fofu lu ab murit wara a ne jaayante googu nag ci ñaar fukki fan yoyu la leer Cheikh ibrahim tak ndigam nak di dukk dukkil sëriñ bi ak di ko lëggeel yéen liggéey fanaane root gaa yee nelaw banaa xureet sëñ Moussa xureet da xanaa mooy xaran mooy xaran yu nag ñëpp di ko dégg laataa ginaar di kurkureet xanaa loolu de mooy ginaar hmm. moo ko xewal daawul dox yi Cheikh Ibra Fall amutoon garam place daawul gonnali yitteem yëpp lëggéey la woon lëggéeyal sëriñ bi moo tax sëñ Moussa Kane lëggéeyal sëriñ Touba la sunu maam yi yéege woon ba am ndam yu dootul jeex te lii leer na waa Touba dama am aaye bu ma tiim bopp daf maa jox Cheikh Ibra Fall hmm. alladina amanu gaa yi gëm waaye bi ñu gëmee ba nopp luñ ca teg wa haajaru ñu gàddaay Cheikh Ibra daa gàddaayoon kër yi bokkam de ci ci moomeelu Touré Atoumane la bokkoon de juróom benn weere ko dese woon mu toog ci seesum nguur de mu jaay lépp jënde ko jébbal boppam sëñ tubaa ëndaale nag kattan gi ak baatin beeg secret bi loola waral waa njare xamoon ne ki dem ponkal la loolu la yàlla dogal waaye yi mu ca de wajaahadu ñuy jihaad fi sabilillahi yaakaar naa jihaat ci yoonu yàlla moom mënut a weesu lii Baay Faal yi nekkee ak noonu moom <laughs> ah waaw waaw tëral juróom-benn fukki nag nag defal ko ba jekk nag sëf ko ci ay bóoli nag teg ko ci ay camion nag takk seen digg nag duñ yëg sax ca camion yi nag di sikkar nag di ko yóbbu ci kenn na ko bëj ci kanamam tàllal koy loxo mu tufli leen ñu ñibbi yaakaar naa moom ji jihaad fi sabilillah mënu ko weesu moom loolu Baay Faal yi la ko yàlla cërale te Cheikh Ibra Fall waaw waaw mm. Mm. dama ne wa jaahadu ñuy jihaat ci yeenu yàlla yemuñu ca de bi am waalihim ci seeni alal gaa yi bi koor gi jub si xaw ngeen a gaañu de te ba tey kumte ngi leen di xaar de yéen lu ngeen am joxe ngeen ko de dara deseetu leen ko kumte kañ gannaaw ëllëg la altine waaw mu ngoog ci ngeen jëmaat de na leen leer na nopp lu mun munta am de Cheikh Ibra dane woon sëñ Mourou Fall gébb kuy wut yàlla te saa boo sonnee noppalu doo am yàlla doom noppalu moom bu ko xaar fii moom ëllëg la mooy kon lan bi am waalihim ci seeni alal ak lan wa anfusihim lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna daawalu sëñ Ibrahima kan Ibrahima kan doom mu ne faal mu ne aay boobu nu ngeen koy firee mu ne a faal dees na yar aw nag ba mu doon aw xàbban yàlla laaj ko ñu joxe ko dees na yar am xar ba mu doon am kuuy yàlla laaj te ñu joxe ko dees na yor alal it yàlla laaj te ñu joxe ko Cheikh bi na teg ab diir Ibrahima kan doom faal waaw yàlla moom kenn ci yéen jaralu dagg boppam jox yàlla Baye Ibrahima ah Fall foofu day tollagun fa mu naa ah, kon day li ngeen di wut day mënagu leen koo am nag fekk tollu leen foofu kon Cheikh Ibra Fall mooy ki jaayante ba joxe léppam dégg naa sëñ Cheikh Ndiaye mii xasaayit wax lu rafet te daw yaram Cheikh Ibra Fall daa gore ba 14 18 première guerre mondiale bi ñu bindee këyit wi dugal ci doomi sëñ Touba yi ak njabootu sëñ Touba gi ñu dox mu këyit way dox ba ñëw kër Cheikh bi ko Cheikh Ibra Fall jàngaloo Baye Ibrahima kan ba mu jàng ko Alaaji Fallu Mbàkkeem sëñ Touba lañ njëkk a tudd aw turam Cheikh dana génne leen doom kooku du dem guerre dugal sëñ Fallu Fall moom soxna Fatal Wade ma gis sëñ Ablaye jox nga ko addiyee gileem yu safi ngurd safi koom yaa joxe sa doom Fallilou Fall am na texe ah. loolu mooy yëg-yëg bi Cheikh Ibra ngoog gore la daa gore ba gore te moo ne kat 14 18 am na ñooñ bi ñu yëgee ne seenu njaboot war nañoo dem dañoo xëcc seenu njaboot ci ruq dagg leen wala ñu gaañ leen bañ am mandarga wuy tax ñu bañ a dem inat te ay mag lañ bismillah <laughs> aaya bi waaw dama ne fi aaya bi yeggee mooy anzamu darajatan indallahi ñooy ñi ëpp daraja ci yàlla ndeke Cheikh Ibra Fall nag booy wër ñi ëpp daraja ci yàlla booy boo nga jàpp ko dama ne <laughs> booy wër ñi ëpp daraja ci yàlla booy boo nga jàpp Cheikh Ibra Fall lam ca jeexale mooy wa ulaayika humul faa'isuun ñi texe te yëkkati ko ca kaw te ne ca kaw Cheikh Ibra moom booy wut ñi texe ñëpp fab ko nga teg ko ca kaw ñi texe ñëpp ñi ci des ñëpp nekk ca doonam señal tubaarkàlla macha allah rabbi eh, sëñ Moussa noo ngi ziyaar bu baax a baax soxna maam Faty Mbacké moom Serigne Cheikh Assoufal moom Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikhul Khadim mm. moom maamam Cheikh Mouhamadul Bachir moo ñu dimbali si si si maam Cheikh Ibrahima Fall. sànq yaa ngi koy wax. ci lu am solo. wallaay maam Faati Mbakke ñu ngi koy jaaw bu baax a baax di bay faalu. Mm-hmm. Cheikh Mouhamadul Moutakha macha allah nga ni waajuram woowu sëñ Cheikh Assa waaw waaw moom da Mbakke Fall. waaw Mbakke Fall kon Mbakke ñu lay jaar bu baax a baax. cey cey cey. Mm. Eh, eh, sëñ Moussa moom dama lay bàyyi nga wéyal rek. sant rek. maa lay wax li. <laughs> daf maa woo wax li ma la ci guddi. aywa alhamdulilah ki jigéen la. ci suba la ma ko wax. ku góor ki tamit bi may waaj a ñëw ci bi la ñuy wax ba mu yàgg mu ni ma biig li ma doon waxtaanee Cheikh Ibra moo tax bi ma tëddee ci guddi dama koo génn. aywa maa la wax lii. moo tax day sax sax foog maam Cheikh Rafa. <laughs> ah juguñu fi daal. waaw <laughs> boo nekkee ci ñoom rek dañuy na ci yow boo koy. boo <laughs> koy yëg yow ak yëpp. waaw yàlla na gën ci suñ biir. amiin Fall sëñ Moustapha. Ah, jërëjëf. ca la mooy xasida yi ah. jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall mooy xasida yi. ndeysaan eh, sànq daa am ko moo wax ni moom. waaw maanaam da nga koy da ko soo da nga koy dégg ci biir raay yi daal xam nga nag ñun suñu jàng soriwul. waaye nag daal. ndeysaan. am loo xam ne yëg-yëg lay doon bu la rëccee rek wëcc na la damaa gis Baay Faal yi bu ñuy tudd yàlla ba seen yaram tàng ah. ku ci daanu ah. jërëjëfe Cheikh Ibra Fall ngay wax wala turu Cheikh Ibra yi moo ne yàlla la ñuy tudd de ah. waaye turu Cheikh Ibra yi moo lay daaneel yow loolu nag xam nga gis-gis bi ma ci am mm-hmm. mooy jeex gi mu jeex takk ci yàlla boroomam jeex gi mu jeex ci Serigne Touba mooy tekki jeex gi mu jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tekki jeex gi mu jeex ci yàlla boromam ndax dafa waxoon ne aqi Muhammad rasulullahi day doom ab jaam lott na ci jot ko waaye Serigne Touba day yàlla dimbale na ko ba jot na aqi Muhammad rasulullahi kon nun nanu daw bu ñu munta jot aqi Serigne Touba itam nañu def lu ñu am sëmbërtal ko ci moom mu jotal ñu ci jot googu mu jot aqi Muhammad rasulullahi kon Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina kon sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Moussa jërëjëf tey waaw xool yëpp sedd na Sina Omar jërëjëf wax nga dëgg sëñ Seex barkal waaw mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wu am murit di aw ba am ngërëm bari murit te dootu reddi tax taxe loolu mooy njëbal gi te jëmm ji nga tudd léegi Cheikh Mamadul Bachir wax na ci minanu mhm. ne xaka alayya muriduhul kabir ak mhm. Cheikh Ibrahima Fall wa huwa min firsaniyatil wa cheikhihi mhm. sëñ Basiru nee na maa laaj sama baay Cheikh Ibra loo njëkk njëkk a waxanteeg Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul mun ko lam yuxrijin bayti ila talabu cheikhin muwassilin أجد من حاله نور حق تندفع أمامه ظلمات الخلق تنجلي به آيات الحق ولو لم أجد أحدا ممن هذه صفته إلا قبره لبلغني صدق نيتي في أملي وإني أبايعك على الامتثال والاجتناب وترخيط الهمة إلى الله شيخ ورفع اللي lu réy la kenn mos koo wax. moo wax loolu Cheikhul sëñ Basiru nee na. Mhm. daf koo wax ne ko bi may génn sama kër wéyjur ya mhm. wuti sëriñ bu egg ci yàlla te man ma egg ci yàlla lay wut. lam yuxrij min bayti illa talabu cheikhin mu wassilin sëriñ bu egg ci yàlla te man ma eggale ci yàlla. fa man àgg rek àgg ci yàlla àgg ci yàlla li mu tudde al wusuul al wusuul mm-hmm. waaw wusuul ci yàlla bi Cheikh Ibra Fall ñëwagul kenn sañu ko wax mm-hmm. nit ñi seenu jaamu yàlla mu ngi yeggoon ci wut rahmatullahi yërmande yàlla kepp waaye warit waan minallahi akbar Cheikh Ibra Fall ko fi indi am ngërëmul yàlla Cheikh Ibra Fall ko fi indi moom dafa jënd ajudu min xaalihi nuura xaqin sëriñ boobu damay fekk ci biir baatinam leerug dëgg gu may fegal lënd mug bindee fi te Moustapha dëgguma la waaye ñeent fukki gi ñuy nattable ak mooy ñeente euh, quatrième position hmm. ak ak ñeent fukkeel gi waaw loolu xam naa gars yi dinañ ci am euh, ak lëndëm bëgg lu ci leer tamit baax na ci <laughs> maanaam dafa am liste bu ñuy lim ci fukki nit yi njëkk jébbalu mm-hmm. ci sëriñ bu mag bi waaye li wér mooy Cheikh maam Cheikh Ibra yoonu murit am na at mu tegal mu door ñëw am na at wax nga dëgg koor la sëñ Tuubaa njëkk a woote mhm. bañ demee ba mu dellusi ci déwén ginnaaw bi sëriñ bee waxoon ne laxat shaafaxani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi rabbi asxaabaka bil himma wala turam bi darsi faqat wa rabbi kulli waahidin minhum maa yaliqu bihi baawa Cheikh xaw ma ñeent fukk la fekk ba téeméer waaye bi mu ñëwee lam ma fa fekk da koo dindi waaw lim naan njëkkuma sëñ Bamba waaye lu baax lu ne lu fi baax maa ko fi indi waaw damay bañ a dugg ci lim bi waaye li fi baax mm. sëñ Cheikh Cheikh Ibra Fall ko fi indi damaa wax ni waxal nga ni waxal nga ni waaw fekkoon te gars yi xor-xor <laughs> yow jàng nga ko léegi maa njëkk jibbalu di raam <laughs> yaa ko jàng léegi de maa njëkk jibbalu di raam di fóon loxoom di ci sujjóot hmm. dégg moo tas suñ daara jën doon murit murit loo ca Mbàkke Kajoor <laughs> loolu sëñ Ndaama ko wax waaw ngir wañuy doxe daan doxe waaw boo wax na mën naa am. waaw ñuy doxee moom. waaw muy muy muy ni ñu nuyoo sëñ ci kaw a. ñun ñu gaaw dem yooyu xam naa. neel moo njëkk mu muritu rek. ku am ngor ku ne. ndeysaan <laughs> ku am ngor ku ne. ndeysaan lii nga war a wax. dëgg jërëjëf. yoon wi li mu rëy rëy rëy. moom la wax ci yoon wi nii fii la jébbaloo woon. tey jii maa ngi jaajëfal sëñ Babacar Mbow. Oh. ndeysaan murid saadix ba mhm. sun borom dolli ko ay ngërëm mu def ko nee mu ko def man xamaguma ci yoon ni ku kuñ wutal barab bu rëy buñ def daanaka milliard wane ni fii la pacte d'allégeance bi amee woon njëbbal gi fii la amee woon wala su kee bati woom laa toog di wax nag waaye gër naa ni Cheikh moom fa mu jébbaloo woon waaw du moom képp jébbalu woon. waaye moom fa mu jébbaloo woon moom. waaw mu ngi dund ba tey. alhamdulilah. nga ne mu ni ko damay fekk sëriñ boo xamante ne. ajidu min xaalihi nuura xaqin. tandafihu amaamahu zulumatul xalqi wa tanjili bihi ayatul xaqi. kawteef yi amoon ci yonant yi ak wëlli ak laqtaa bi ak nujabaaw yi day feeñ ci jëmm jooju lépp day daje fi moom. Mhm. sëriñ Tuubaa ayatu min ayatillahi la. wax nga dëgg. kon na tuuti kon sëriñ bi lëm mbiram ba kenn du mas ci baatinam lu dul ci ba nuy taxe Cheikh Rafal ne ko rat poñe ne ko doo dem jëriñal jaam ñi mun ko ñii xamuñu ma jàdd naa àdduna bëgg a dem mun ko jariñ leen mun ko nu nuy def mun ko yow wax leen dëgg rek ñu dégg ma wan leen dëgg ñu gis waaw Cheikh Rafal wax na ci waxtaanu gébbu Fall wa ni réewum senegal bi nga xamee ni xam naa ni seen alluwa dafa gàtt laa wax mbaam ma ne ko wax leen lii leen di jariñ waaw wax leen li leen di jariñ nee na fekk na booba tëral nañ euh, euh, xawaayit yi nga xam ne mooy tënk ak jaamu yàlla nee na ñi rëy ne du topp sunu moromam jaam ñu amuk kañaan daal di génn nee na lii ma waral xàjjlu koo bi waaye lu ko jëkk xàjjlu koo amu fi woon ma wax sëñ Bàmba ne ko xam nga nu ñuy def mhm. yow wax leen dëgg ñu dégg ma war leen dëgg ñu gis kon ajidu min xaalihi nuura xaqin tandafihu amaamahu zulumatul xalqi kawtee fi sunu borom daan def ci wëlliw yi day feeñ ci moom te jëmm jooju ajidu min xaalihi nuura xaqin damay fekk ci moom leerug dëgg yàlla kawteefam yi day daje ci moom walaw lam ajid ahadan mimman haasihi sifatuhu illa qabruhu kenn mos koo wax su ma ñëwoon adduna bañ na ma bàmmee la mu ngi nii fii la ne eh, danaa fa sukk liggéeyal yàlla bu yoonu murit taxaw sëriñ bi ne ko eh, ana loo bëgg mu ne ko egg ci yàlla laa bëgg egg ci yàlla laa bëgg mu ne ko yàlla xaw ma fu mu ne yàlla xaw ma fu mu ne su ma xamoon fu mu ne ma topp ko mën ko tànk yàlla laa topp ba mu dugg ci kër gi su ko génnee nag ma génn seetu ko waaye man awma ci kenn yitti ku dul yàlla dëgg loolu mooy waxante yi sëñ Omar di junj. loolu suñ Cheikh Ndigal nag dégg naa ci làmmiñam mu ne ñeenti fani koor la Cheikh Ibra Fall njëkk ñëw ci kër yi. Mm-hmm. Cheikh Sidi Mokhtar it mas na koo wax. am na màggal goo xam ne fekk naa sëñ Cheikh Ndigal ñeenti fani koor mu barkeeloo ko ne ne ndax Cheikh Sidi Mokhtar wax na ko nu barkeeloo ko tey it ne wax nañ ko. ñu ñu mm-hmm. barkeeloo ko. yendu fa ba digg bëccëg door a ñëw continuer togg ndog yi. waaw waaw ca ñaar fukki fan yi nag. wax nga dëgg ci la mbir ma wóor bésub dibeer waaw <laughs> dégg nga ni ki ni ki ren bésub dibeer lay doon bésub dibeer lay doon ah, léegi nag wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa mm-hmm. qaala yaa qawmi ittabi'ul mursalin mm-hmm. ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtadun sëñ Cheikh Ndigal nee na mooy Cheikh Ibra Fall moo fees dell ak kaamil rek waaw mooy alquran ah, wax nga dëgg de alquran mooy alquran léegi nag daan ni sëñ bi innama hamillahu wa daarul laaxira ci aduna ji ñaar ñaar kep moy sama yene moy mhm. yalla ak alakhirah am fi yalla la bëgg su ëllëgé lañ may fay dañ mako fay alakhirah ci yalla sëriñ bi nak ne ko kon li ngay wax daara ji xamuñu li li li nga indi image bi xamuñu yes lu yes pek la fa indi de ndax jang rek la fa fekkon waaw fekkon ñuy jang tambali nak di sok di wal mhm. di balé di tame damay wax ne jigéen ju baax juy sëy ci kër hmm. ni muy sëyee la Cheikh Rafal ñëw seeyee ci biir kër sëñ Touba oh waaw diggante ñeenti fan yi maam Cheikh Ibrahima ñëw ci kër sëriñ Touba ba ñaar fukki fan yi hmm. lan la fa nekkee woon ndax ñeenti fan yi sax li tax man ma dëggal ko hmm. dafa niróoleeg Serigne Touba lu bari ndax xarajtu yowma sabti rabia safar mm-hmm. li xidmatil muxtaari afdalil basar moom itam mu ñëw ci ñeenti fan kon diggante ñeenti fan yi ak ñaar fukki fan yi ndax lan la fa Cheikh Ibra Fall nekke woon waaw xam nga di xàll yoon wi li Omar mii junj sëñ Omar mii mm-hmm. moom la maam Cheikh dafa ñëw maanaam teg gouvernement mm-hmm. établir hiérarchie loo gis ci àdduna day am hiérarchie ah, sëñ Cheikh Ndigal laa dégg ci làmmiñam mu ne bañ jógee Mbàkke Kajoor seen ñaari néeg yañ sampoon Daaru Salaam lu ko war a loolu ab laaj la maam Cheikh Ibra bi mu dikkee Mbàkke Kajoor fekk na fa ñu bari doo tudd nag maami kenn ndax tey koo wax rek mu am nu mu ko gisee hmm. waaye fekk na fa ñëpp sëriñ bi dañ ko doon abbu daa su bëggee bind daa ji nekk ci kenn day yónnee soñña ko ko soññaat ko ñu ñor ko jox daa ji buñ tegee ndabul añ dañ koy njëkkante ak moom di toogandoog moom ci kaw di ree ak a xàqtaay ca kaw Seexiru Xaal bi mu ñëwee procédure boobu ca la tàmbali nag moom defaraat sakkitu kër gi indi benn rupture waaw indi rupture mhm. wutal sëñ bi mbaar mu muy yendu di jàng alxuraan ak bind xasida ni ya fa nekkoon mu daaneel leen wutal sëriñ bi néeg boo xam ne bu guddee ca lay tagg mu Rasulullaahi ber ko daal ber di xamb mattum jalambaan mi mu boof ci buntu kër ga di ko xamb saxaar si bañ koo xër sëñ bee toog ba yàgg ne ko matt bi nga fi indi bu yàggul moo may day moo gën ci man jalambaan looloo ko dugal ci yoon wi fekkoon na ñu naan ko wutal matt waaye mattum Ibra Fall la bi bëgg muy jalambaan muy jalambaan mujj gi li alxuraan di wax ni yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baxdikum li baxdin an taxbata ahmalukum wa antum la tashurun inna alladina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtaxana llahu qulubahum lit taqwa Cheikh Rafal utiliser loolu kenn du joor sëriñ bi ca kaw saxaaba yi dañ daan def bu guddee buñ toogee ci yont bi ba fàtte seen yet ba seen jaas yi dañ koy fëgg naan ko Muhammad Muhammad dañoo fàtte suñu yet bi dañoo fàtte suñu jaas yi alxuraan wàcc na loolu bu ko bi kenn dootu ko joor kenn du ko nuyu itam lu dul da ngaa sujjóot règlement intérieur baa ngi noonu kon bu ñu doon wax ministre de l' intérieur Serigne Touba mooy Cheikh Ibra Fall ministère yëpp ci gouvernement ci Cheikh Ibra Fall la daje économie moo ko yoroon te économie saxaaba yi dañ ko daan defal yonte bi yaa ayyuha alladina amanu ida naajitumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa zalikum xayrun lakum loolu moo gën ci yéen su ngeen ko xamee fay lam tajidu fa inna allah gafur rahim su ngeen amul addi du ngeen ko jox nag nee na yàlla jéggal na leen waaye maam Cheikh nee na nuyoo sa sëriñ loxoy kese day tas yaakaari sëñ bi <laughs> ëpp naa def de <laughs> nuyoo sa sëriñ loxoy kese saxaaba yi dañ daan laaj yonent bi naan ko moom saxaaba yi nee na yonent la di dugg ci marché yeeg jënd ko jaay hmm. na toog nag ñu di ko laaj masala yi suñu borom ne ah su ngeen bëggee mu toog nag su ngeen ko nuyoo te jox leen ko dara <laughs> kon yooyu mooy li sëñ bi di wax ci diggante bés yu njëkk yi ba ci ñaar fukki fan yi lañuy ñuy waxante xajul ci bopp daara ji ba génn ba ci ngi gis Bamba fa lañ toog sëñ Tuubaa jublu penku toog ci taatu ngiis gi ne ko ndongali dëgg-dëgg ana loo bëgg mu ne ko yegg ci yàlla bëgg mu ne ko boo bëggee yegg ci yàlla da nga fiy def loolu kenn deful génn na sax ay jumtuwaay jox ko mm-hmm. goj ak baag ak bagaan jox ko ne ko liggéey baa ngi noonu Cheikh Rofal ne ko bisimillahi lu ma amul yaa ma ko xañ Cheikh Rofal sëñ Tuubaa ne ko doxuñ ci diggante ak dara yooyu nag mooy waajtaayu yoon wi nga xam ni lim indi xamuñu lii hmm. baamul waaw man itte ji waaw maanaam bi waaw sëñ bi damay dégg nii dafa wax ni ni ko ndongali day nima jaayante sama digg ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa jaayante gi loolu la ma fàttali ndax bu ñëwoon moom ci kaw suuf waaw ah te firoon nañ ay yitte lool waaw ana ya ibrahim law lam ajit min asarihi sallallahu taala alayhi wa sallam illa manzur hadihi nujum والسماء التي تحققت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها لوثقت بأن نيتي ومحبتي له كفيلتان لي بقضاء الحاج والأخذ باليد أنساب الحسنى mooy li ngay junj. mu ne ko yow sa pas-pas. ak sama pas-pas daa mel ni benn la. ndax man yonent bi may seet. di ko liggéeyal su ma ñëwoon ci àdduna. bañ na ma biddéew yi koy tiim. ma di ko xool rek moom la daan xool doy na ma. asamaan si may tiim su ma wóoree ne moo doon tiim yonent bi doy na ma. daan ne man it kon li ma bëgg ci yonent bi ñaar yooyu mën na maa may sama sama pas-pas mën na maa may li ma bëgg ci moom. daan na ko kon nag inni ubaayuka alal imtisaali wal ijtinaabi wa talxiitil himmati ilallaahi maanaam ma maa ngi jaayante kon nangu sag jaayante maa ngi jaayante ah, nangu sa jaayante nangu sag jaayante Cheikh Ibra Fall moo ko wax maa ngi jaayante ak yow ci nii mm-hmm. innama hamillahu wa daarul laaxira <laughs> yàlla laa bëgg ak àllaaxira fii buñ ma fay daal lu toll ni cunkóoru karaw buñ ma ko fay Sëriñ Tuubaa tontu ko ne ko kon li ma lay li may nangoo sag jaayante إني أبايعك على الامتثال والاجتناب وتلقية الهمة إلى الله ماغي واخنا سا جانت مانكوي نانغو تي كاو داغي جيفي ساماي نديغال تاي باي ساماي تري واي نك ولا ترجم مني في دنيا عارشا يذلك فضلا ان اهل ودار بول ساكو تي ادونا آه. مبار مو رافي كيرال آه. سامب كير نك بو سام خيل دم هو قد تكلفه ak noonu la war a demee mu wax ko tegtal ya fa moom sëriñ ba wan ko la fa moom mu xam ni gis na ko ko moom faal mu daa di fa mbërëm joxe te boo fekk ne sëriñ bi yàlla duy na ko ba mu fees ci leer ak ngëneel waaye kenn xamu ko شيخ ابراهيم فار ما يسبيك كم فار من بولك فار خاتي تنجار سيد موسى نام وقت نليا فمام شيخ ابراهيم بابا لي سيدي بابا وخنا لولا القران والحديث ومنافع المسلمين ما بتفيد ليله واحده sëriñ ba ko la fa moom mu xam gis na ko moom Cheikh daal li foofu ay mbiram joxe fa bu ñu woon ak alxuraan ak xadiis ak bëgg leen a jëriñ yéen génn guddi jërumaa fanaan ci àdduna tegtal ko yoonu am murid di aw baraw pexe marid Cheikh Ibrahima Fall ko rat ne ko jëriñal jaam ñu door dem ndax yaa yor seen yërmande ba am ngërëm bëri murid faal te dooture di tex texi jébbal googu nag moo am ñaar fukki fan ci weeru koor moom la ñuy màggal tey jaraama ndey sëy na bu njaay Serigne Touba ak maam Cheikh Ibra mooy ñaari jëmm kenn deux une même mission jaaraama ndey seen bu ñaayoo la soxna jaara yoroon di ko jaay sëriñ Tuubaa ku ko gantu doo jëriñu ci yàlla yaa ko musal waa njëriñ ñaay saw nga ñuroon na yaa teexe Cheikh Ibra Fall ku ko wan gannaaw doo jëriñu ci yàlla Cheikh Ibra Fall bu Bamba doonoon rasulullahi sallallahu alayhi walaay wax nga dëgg xam naa yaay doon Babacar Sadiq Fall Rafiq wax ma daay sëñ Cheikh Fall nee na dënnub de digg ginnaawu Cheikh Amadou Bamba ak dënnub Cheikh Fall boo jëloon kayit u def mbind surukal ci diggante ba mu far ndax jege gu ñu jege. naka Cheikh Ibra Fall. Hmm. baabur yi daa yay nga ko faal ndax juba yow la ni misaal faal laa yaxmilu axmaal alxaqi illa man jahada nafsahu bil mujahada wa riyaada Cheikh Ibrahima ka jaranaw kàngam yàlla junc de zunnun al ma wax loolu jaayante yaay ki tax mu xew nee na ki yàllay jox yen bi day fekk mu dëkkmal boromam jaayante ak yàlla mën koo yenu boo dikkul kon Cheikh Ibra bu dikkuloon dara du ko jar ci àdduna wóyalal. Cheikh Ibra yaa di ñaay. Cheikh Mourtala nee na. alhamdulilah ab góor. Cheikh Ibra yaa di ñaay Fall ngañ ma dëggante ma Fall. yadda yaa matal ñe maala ni saay mortala faal def na la waay Cheikh Ibra Faal yaay ilimaani xarnu beyi mi si bii ku ma faal maami Cheikh faal dew la man moo tax فاو جبات لامبيا ماي سترال شيخ إبراهيم غور كم من ما تحمدن سبايفا خبر ما تحمل مدن سبايفا di suturaal xemem la man moo syekh ma doon sa baay faal Cheikh Ibra faw ci baatin làmp yaa nuy suturaal ëllëg la mbir yépp di leer la gantu ni yàlla la ñaan dafay lekk lu baax ni sawara di lekk matu sopp noonu Cheikh Ibra Fall jaara ma maam Cheikh Ibra Fall walaay wax nga dëgg walaay wax nga dëgg Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall si bu soxna bala maam yaay bu nu xamee wooy bu nu xamee ndeysaan Cheikh Ibra Faal bu nu xamee Serigne Touba yow Faal yaa tax ndax nag bu lekkee ci olom Faal coy laa tax. ndeysaan Cheikh Ibrahima Faal. sëñ Bamba xool na ko ba yàgg na ko Ibra Faal seeral ni gërëm naa la. lépp la yàlla wax ci alxuraanul karim faal sixro ni gërëm naa la ba saa ba sama xel deme ci yow loo ca xamul maandul ci Cheikh Ibra saa bu sama xel deme ci yow ngërëm fàq na ci sama dënn bi tàbb ci sa jëmm ji yow ku la gëm faal adduna jeex na sixro yaa suufeel ibadatu ulumiya yëkkati ibadatu xidmatiya yowmal xiyaam mata kooko day mucc lii de neex na. Ibra Fall yaa tax ba góor gu ñëw fi di jigéen ba keroog mu nuy weesu. yëgu la gëm julli la julli juróom Fall. Ibra Fall yaa fi saxal liggéey sa alal ba mu lew. wóor weeru koor ak Màkka Faal ndax amoo moroom nga sukk di ko joxe ba mu jee nga mottalee ko say rangañ mami sëriñ Seex Nda Faal yow ku la faal julli na julli juróom maam Cheikh Ibra nee na sama waatu joo gis ci alxuraan sëñ Bamba wala joo fa gis mën a man Ibra Faal wóor weeru koor ak Màkka Faal ndax amoo moroom maam Cheikh nee na maay suuf duma feeñal sobe si daaw Cheikh Ibra Faal jaara Ya ma Cheikh Ibra Fall la bubu Cheikh Bamba daale leeral nga réew yaay kamaar yàlla nga dolli bédeke maam Cheikh Ibra Fall nee na Serigne Touba daa feeñ ci penku bi di yëkkati lislaam ma feeñ ci sow bi di daaneel kéefar man Ibra Fall adduna ndax day bëgg jeex góor am nga yu baax yi bëgg a jeex am mbër ndaw yaay bëgg a moo gaa yi xam naka bexe wax nga dëgg de wax nga dëgg de sëñ Moussa ne ka xam ne ak tarbiya ndeysaan muy sëñ Tuubaa ak a xamoon nu tarbiya Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal moo bu demee yi faal ba surgaay ku leen di wax naka pexe moo tax Cheikh Mamadul Bachir ne wa kadalika Cheikh Ibrahima Fall lam tamdi ala mubayatihi lahu sinuna hatta ijtamaat fi amrihi wa nahyi ala tarbiyati yaa ko wax de ulufun min al muridina salikin mata wax Cheikh Bamba wax na loola lu fi mata jëf Cheikh Ibra jëf na loola lu mata wax Cheikh Bamba wax na loola lu fi mata jëf Cheikh Ibra jëf na loola maam loola waral ñu naa ko lamp yoon wi looloo waral ñu naa ko lamp yoon wi Seex Ibra Seex Ibra Faal maam yi Sëriñ Seex Ndigal Faal maam looloo waral Seex Munda Faal maam yi Faal Cheikh Ibrahima looral ñu naa ko lamp yoon wi Cheikh Ibra Faalay waaja xallu yoon wi mm, Bamba ji jëf ji laa murit du seetaan jëfal te jëf yow tabañ di ñeetaan mm. bamba ji jëf ji laay waay murit seetaan jëfal te jël yow murit te bañ di ñeetaan te xam ni boo jëful lu muy di seetaan ëllëg yowmal xiyaamate doo fa dégg yaa daan Waju xamul na xamne lu bamba bég mu jek fa li la daane mag ñamu fekkon keur kër bu mag ba mo tax ba ñepp xam cërëm ca bamba lu bamba wax mo wax lu bamba aaye mu dal di bàyyi nib yonen bu deg aaye Cheikh ibrahim Fall taloo ca xamul noppam yooya mas la déglu lu dul ndigal lu bawoo ci bàyyi fàllu Cheikh Ibra Fall tànkam ya mas la jéegu jëw ci lu dul ndigal kenn du moom du kenn Cheikh Bamba ko jiital mami Cheikh am di Xadi Fall Bamba ko jiital waaju ko jiital jiitu waaju ko neenal des ginnaaw farlu juutu abu rijaalullaahi mm, yëpp Seex Ibra Faal ci ay turam la bokk Faal abu rijaalullaahi baabul muriidiina ngañ ma dëggan Demba Faal Seex Ibra yaay turam la bokk baabul muridiina maami sëriñ Moodu Faliilu faalo ngañ ma déggan Demba Faal yoonu yàlla la ku ci mënta wax lu baax na nga ca maandu bàyyi faal bu yor njañam war di si kuru ku ci mënta wax lu baax na nga camaandu njaase ñëwal ci loolu Cheikh Ibra ko wax Cheikh Ibra Faal yam sa xanti yaa baax ku gis mu naan Cheikh Ibra Faal day reerale nee ko kasabta Cheikh Ibra Faal day leerale waaw waaw mise bii ku ma faal ma nu booleek faraxat yi ci njaar ndéem la suka bengooney faal faal faal ku gis mu naan Cheikh Ibra Faal day reerale nee ko kasabta Cheikh Faal day leerale wallaay mu naan Baay Faal bu deewee duñ ko julee nee ko kasabta Serafaa lay jàlle. addi bi toll. daf maa joxaat xaal. Mm-hmm. buy wane ne Cheikh Ibra ku sori kaw la. sëñ bee ko waxoon sëñ ma Jaw Paxa malikul nugaat wu lugawi yiin sultaanu aarifiin mm. wa zaaka allazi qad jaa wa diinu mayitun فاحيا وسخصا في اماكن ماسيا سيغ ما ديو باخا نينا سيغ توبا مو دوندال دين موتي توبا بي رين دي دين واي سيغ توبا مو سيغ ما ديو باخا نكو ابرو فال فما كو خلام بو فا خلام باي وون جيم سي سوف بابا دوني توكي دو لال سوف لولا وارال كاتان جي باري بام واخني ادوم مان اك سيغ بامبا بابا دوني توكي مان نين دي ديغ مان اك بامبا شيخ ابرو فال كو خون يمو تيا فو سيغ بامبا سامبو مبر ma samp mbër ca wet ga mm-hmm. teg ca wax ju daw yaram sëñ Bamba day defar di feeñal may defar di nëbb ba booba doom ba booba ba booba mm-hmm. loola waral mbërum sëñ Bamba moo gis mbërum Cheikh Ibra ngi ci wetam sëñ Muntaxa mbërum sëñ Bamba waaye sëñ am di mii mooy mbërum Cheikh Ibra Fall loolu mooy jaayante gi xoolal sëñ Aliou mm-hmm. moom da day koog bi mu jaayantee ba ni mu delloo ci boroomam musta xàcc Cheikh Ibra musta xàcc fi mu ne bi coow li baree teñ takk ëmbi sëriñ bi di ay bagaasam indi ko indil ko waa réew mii ne leen bis ni ki tey sëriñ bi jëlee leen ko ci kaw suuf mooy kàmb gañ ko gasaloon ca Maayomba te Abdullahi Salim ne naarun ta ajjaja hal yun ji tariqa biha illaa mun na jii qalilillahi min naari kàmb googee ñu gasaloon sëriñ bi tàbbal ko ca te fa bagaas yi indil ko borom daarul mooti ba mu soppi ci yegg ci tuur ay rongañ ñu ne ko ki ngeen doon liggéeyal te nekkal ko fii ci njaboot gi bis ni ki tey faat nañu ko Cheikh Ibra ci boppam moy ki rëppital fasam wowe ñu tudde won redouane dem Dakar Sandiara ca ndos ca bori bambay bindu fa ab leetar gas ca suufu Dakar ga suul fa leetar ba koku katan gi da bari mom Cheikh Ibra Fall dir bu gat mu wat ca suufu Dakar ga jot tub seigne touba ci Ibra Fall dalal len seenum xel bala yag dara ma del ci ci rew mi <laughs> wa Cheikh Fall da am connaissance ak seigne bi waye da am it connexion ak seigne ah, dañu am relation bu len bolé bop kenn mënu ko tekkal moy di seigne say wax ne kon dënnub seigne bi hmm. manam ndoddum serigne beug dundum cheikh rafal bo ci tabalon dara mu seet ngir kenn mënu ko teqale day ñaari jëmm kenn sëñ digal ndigal loolu la seedeel Seex Ibra Faal ak serigne bi ñaari jëm kenn yoyoo waral mu jaayante won ba boo yëree bayiti sifaati saadiqil muridi bi ikhtisar arbaatu nazamtuha qaw faxtiraar asidqu fi ma'abati shaykh abad suma imtisaalu amrihi xaysu warad wa tarkul igtiraadi mutlaqan walaw bi baatina alayhi fi ma qad wa mahahu سلب الاختيار لعزن زنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الشقاق Cheikh Ibra ngay gis ndeke dañoo dañoo photo Cheikh Ibra Fall tàbbal ko ci biir bëyit yi fi ne ku lay bëgg jàngal ak murit te bëgg laa gaaw a noppal noppal boppam du fi ne di jéem a jàdd jëm ci kenn day yemale njàngale mi ci Cheikh Ibra ñëpp dugg ci biir xoolal sëñ Basiiru daa am lu ko sëñ daan nettali lu daw yaram sëñ Bassirou mii nga xam ne. Hmm. mooy wajuru Cheikh mu Mountakha. bëgg Cheikh Ibra ba tudde ko njaboot. Hmm. bëgg Cheikh Ibra ba fisal ci moom. Hmm. wax nañ ne wuy jig boroomu Cheikh Ibra Fall sax ci kaw jëmmi sëñ Bassirou la ko defee. kër seex loolu bëgg mënu koo weesu. li ñu xam noonu. jaxasoog Cheikh Ibra lool jaxasoog moom ci lépp. soxna Asou Fall loolu mooy firnde sëñ Cheikh Asou Fall. Cheikh Asou Fall waaye firnde joojee ah. ay ma ngi fi sëñ Fallou. waaw mu ngoog. waaye mi ngi tudd. gis nga yitte juree jooju. loolu mooy tegtal bi Cheikh Basirou def. xoolal li ñu dim li ñu dimbalee ci Cheikh Ibrahima Fall moom sëñ Basirou ci mi nanu daa wax ne daa am bi sëriñ bi génn ci Mbacke Kajoor daal di joxe ndigal lool mag ñi dañoo wër garab gi mu ko joxe suba ba ngoon mënuñu koo gor muy garabu benteñe mhm. ne na sëñ bi daa génne nañ ko goral garabu benteñe gi te buñ daaneel garab gi nañ ci yéeg ba yegg ca kaw xool cer yi gën a jub ñu dagg ko wàccaat koros ko ba am ci lim bi mu soxla mag ñi di wër garab gi suba ba ngoon mënuñu koo gor ngir garab gu benteñe ñi ko xam xam nañ ne dëj yi dafa dëgër ba noppi ñaw te weex Cheikh Ibra ne ci àll bi rek ab diir mu ñëw daaneel aw sayam ne xéexée doom lu ngeen di wër ñu ne ko garab gi la sëñ bi joxe ndigal ñu gor ko waaye dane buñ ko daane nañu jaar ci dàtt bi yéeg ca kaw xool yi gën a jub ci car yi ñu daggal ko ko waaye dañ ko mujj di dànkaafu nag garab gi nag dég faal daa ñaw garab gi nag diggi faal day gaañe garab gi nak dàtt bi ba ca kaw ay dig la looloo waral ñuy xol pexe muñ ko yégué Cheikh ibrahim Fall xé xé dom sëñ bambu lu digle manuna moy sumam tisalu amrihi tisaalu warat moy jëfe ndigal ci sa bu ndigal li roté xol sëñ Basiru netti gu daw yaram ga ca am nee na Cheikh ibrahim Fall da ñet mal garab gi rek diko ko wuti kaw deg yi di xotti yiri ak yaram wi deret ji wala ngaan ci garab gi mom Cheikh ibrahim Fall lolu moy bëgg bu bëgg jeex yéeg ci kaw gor li sëñ bi soxla ci ay ci ay xer waccat jaar fam jaaron deg yi di xotti yaram wi ak yere yi deret ji wala ngaan ba wacc ci souf mom Cheikh waye la ko day bi ko serigne bi ko magni xibaare serigne bi bi mu génnee ba tim ko dana Ibra Fall ma tax mu def deretam ji ni ci garab gi mag ñep ne ko waawaaw Mbàkke mu ne Ibra Fall da bis ni ki tay mayna ko alquran lolo waral waxam jep di alquran yemu ci de Ibra Fall da yalla sak na malaayika yo xamne ne na len fi barab bu Ibra Fall jëfatee ñu fay ko bu jëfee ñu fay ko lolo mo waral mané yitté yitte ji mu amé mom Cheikh Fall looloo ko topp ci pas-pas bii mu amee ci kër sëñ Touba mooy pas-pas bii nga xam ne saabu ci nekk day gën a dolliku dolliku gi muy dolliku nag mooy am murit melokaanu Cheikh Ibra Fall lay yor melokaanu Cheikh Ibra Fall mooy am ngay dërëm am ngay ngërëm fab say dërëm jënde ay ngërëm hmm. loo ma sa am tàbbal këram ay junni daal nga daa joxe loolu mooy jaayante gi Cheikh Ibra Fall bi mu fi bàyyi ko wax nañ ne quatre cent cinquante francs ci xaalis la fi bàyyi hmm. sëñ bi loolu bëri de ca jamonoom nan bare woon xaalis moom ndeke lu mu masaam da koo jëbbal Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul nga xam si wàccaay sax da doon wax naan nañ ko teggi si si si waxin maanaam mhm. fi mu fi mu tëddoon waaw lal yëpp nañ ko yóbbal sëñ Modou Samb gis nga lu bàyyi soxna sax de dafa yéex a ñëw ne kon ko du ko waaw gis nga yitteem yëpp da koo joxoon sëriñ bi Cheikh Ibra mooy koo xam ne keroog bi ko sëriñ bi wooloo ne ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la moo mboolem ñi yàlla gërëm it gërëm nañ la kooku ngërëmam sar na basar sarale basar sarale basar sarale moom Cheikh Ibra Fall yemu ca de sëriñ bi da ko caa tegal ne ko Ibra Fall sa boroom nee na nga wax li nga bëgg ñu defal la ko Cheikh Ibra Fall dane sëriñ bi man génn bëgg laa am te bëggoon naa la ko ñaanal ma sa borom moomu saa bu ma xëyee naa lay gën di bëgg sëñ Basiiru nag lam laajoon sëñ daam Abdourahmane Lo ca laay ñëw hmm. sëñ daam dane sëñ Basiiru biig day ñaari rakk yi naafile yi ma jaayante woon keroog bi ma sëriñ bi waxee loo bëgg ma ne ko askanu kër nday ñëpp dem aljanna askanu kër baay ñëpp dem aljanna murit bu njëkk a ba bay mujj ku ci def lu ya lu naqari yàlla bam nar koo mbugal na ma fab man abdourahman ma te bàyyi murit yi kooku la murit yëpp war a delloo njukkal sëñ jàmbaar la sëñ bi ne ko abdourahman yàlla ci boppam dogal na yow sa jëmm du dem sawara da ngay kafaara lii nga wax nag kafaara gi mooy abdourahman fii nga ko waxe ba ba yàlla moom sag roo saa bu guddi jotee doo nelaw guddi ñaari rakk nga koy fayee kaamilub alquran fanweeri at ak ñett sëñ daam di ko def ba am juróom-ñetti fukki at ak ñett moom sëñ daam dinaa fi la guddi ngir murid yëpp ngir kaffaaraa ko wax joojee sëñ daam dem na ba bu xëyee buñ koy génnee dañ koy jàppoo ndax du man a dox ndax mage gi waaye saa bu guddee bañ fat ko ba ñëpp fatu ji su jógee ba waxtu naafila wa jot mooy am kattanu malaayika dañ ko roof dox dem ca der ba taxaw naafilaa ñaari rakka yi ba bët set moom sañ daam ba mu ko mujjee def nag te génn toog sëñ Basiiru da koo seet si nga xam ne ci at yu mujj sëñ daam la ne ko waaw ñaari rakk yooyu nga jaayante woon Mbàkke Kajoor ca njëbbal ga ca ngërëm la xanaa mënatoo ko de sëñ daam ne ko a kay basiru ba biig def naa ko mm-hmm. daan ne ko li ci yéeme it mooy fa ma waroon a taxawee ci xabb ci alquran dama koo romb ngir tu aaya yi ba dama koo fay ci ñaareelu rakk bi ngir kattanu malaayika ak sëñ daam waaye sëñ sëñ basiru ne ko ah Baye Abdourahman yéem nga ma sëñ daam daal di wax wax ju daw yaram mooy la ma woon léegi ne sëñ Mourou Ablaye nee na sëñ daam Abdourahmane Lo nee na Cheikh Ibra Fall moo tas sun daara jan doon murit murit loo ca Mbàkke Kajoor mag a ko wax te sëñ daam mi ko wax kat sëñ bi nee na bi yàlla jëlee arwaaxu junuudul mu jànnada ruuk Abdourahmane laa njëkk tànn ci samay taalibe sëñ daam du gone de mag la waaye nee na daara jan doon murit murit loo ca Mbàkke Kajoor daal nee na Cheikh Ibra Fall la ko tas sëñ daam day sëñ Basiru loolu la yéem ci man day man kenn képp ma yéem ci biir kër sëñ sëñ Bassirou defal ab toogaayam di xalaat ku mu war a wax ci gars yi sëñ daam ne ko man Cheikh Ibra Fall ma yéem ci biir kër sëñ Touba sëñ sëñ sëñ Aliou bisimilah. la ilaha illa maanaam dama bëggoon nag. est-ce que. sëñ Baye Galas. mu sëñ Saliou. Baye Baye Fall mu ngi koy jeex bu baax a baax ñu ngi topp jataay bi est-ce que ak a baax seet na lool noo fa àndoon si kaso rajo bi ndeysaan bind message ñu ngi koy jeex bu baax a baax Mbacke baax day day daje nañ Amérique ndawin ndeysaan mu baax lool te te yaatu ñu ngi koy jeex baax a baax Mbacke Ball <laughs> <laughs> waaw maanaam maanaam fi mu ne nii daal dama bëggoon ndax sànq dafa am loo junj ci ci ci xasida yi xasida gi raay yow man boobu ba léegi fi ma mu ngi am nu muy def si man te foofu moom dama bëggoon rek maanaam nga ubbil si njaase rek bu ko defee rek ma mu am nu mu waaw ndaxte xasida gi nga ne saxaadaatul muridina dëggal loolu xasida ak ngërëm la sëñ njaase mooy Cheikh Ibra mooy Cheikh Ibra yoonu murid bu fi waay liggéeyee ba am ngërëm buñ ko woowee di ko gërëm nañ woolu ci njabootug Cheikh Ibra Fall ñu teewe si ngërëm gi ne ko borom ngërëm lu rëy la ngeureumam lolé leen rafaatale jëmm ji ba war koo gërëm motax qasida xasidaak day qasida go xamné ne katan la mag ñi wax nañ né ku ma fi barab di wut ngeureum té ngeureum la melni ni taga témbe ci yéx té nga té ngir jotti boko saxalé mu fekk la lolou mën na ko seede ci sëñ mbacké jañ xasaayit sëñ mbacké sonu lañ ko tuddé sama mag la ño bok ñaari wéjur sëñ mbacké sonu loko yor fukki at ak juroom ñett bi sëñ mbacké nelawé mu dess ak sëñ Moussa jañ bobo fekk na magé na lol ngeureum li diko ko mu bëgg ci jot nak ndax fofu la jamono toll mu ñew ci seigne Cheikh Diouf Mouride sadiq ca Ngoy di tari bépp sëñ Moussa nawel eh. mom seigne Moussa am seigne di jambar lol mumsen seigne Cheikh Diouf kérok bam ko yendulé bay dem talal koy loxom ne ko ngeureum lañ bëgg am ñu ngi ci daara ji seigne Cheikh da ko ñaanal ba nopi ne ko bo démé na nga sax na nga takko ak qasida ak raaya di ko jàng eh. na ba mu jaayenté di ko ba bis ba delusé na seigne Moussa Ndiaye wote niveau ji gërëm leen kon loolu moy firnde li sëñ <laughs> أما بكر صديق سيدنا أما أبو بكر نك أبو بكر الصديق أجي دقل جي سيدنا موي سنو سانغ فللجميع بأن قد فاق إقراره وورنا نيب مو غنا جيغا رسول الله موم أبو بكر الصديق wabaana israfaxal muxaara wax mas naa wéttili yonent bi ci aw yoon wax dahuma ñoom ñaar kott keneen wéttiliwu leen fi dayqi nawamalil fi lan saaru ci barab boo xam ne ca lañ dox jëm ñoom ñaar rekk wéet kenn wéttiliwu leen aw wa baadum dañ leen a génn ci kaw ñu sosal leen du duural leen yonent bi génn ànd ak Abubakar mooy gàddaay gi muhaajiran li makaanin ardu daaru muhaajiran ñuy way gàddaay li makaanin jëm ci barab boo xam ne arduhu daaru mooy këru dëkkuwaay ga baatu bi makrin asimin xawla marxadi ñu fanaan ci biir pexe yi noon yi ñu di leen tëggal ay ndëgg sërëx ak bëgg leen a rey wa kullu min noonu yàlla yi kenn ku ne dangaa takku ngir bëgg jël bakkanu yonent bi baa ngi jël bakkanu Babacar Sadiq waxaabala bisuu in ah xaasidiina la dëgmal ra dëgmal nañ rasulaay bisuu in ci aw ñaawteef xaasidiina la hoo ngir añaana Mustafaa sabaaru fii laylatin ci guddi goo xam ne saara fiha ca la doxe woo wa sabaaru muy aji moom Moustapha wajanax waa man waajaroo ñu am ko ñu fay mu topp Moustapha ngir mu jël bakkanam ndax warta rëcc ityaanihi fawqa tërfin okay nee na suraaxata lañ jox jaasi yu ñaw ak daamul ju gudd tëree ngir ko indil ñu Moustapha saaxoo okay jaasa nga ne lan saaxoo suraaxata delluwaatal ci bayit wi saaxoo suraaxata saaxu yabal nañ suraaxata waa ju tudd suraaxata ka yiji abihi ngir mu indi rasulilah yi siran ka yiji abi walam ah. yakoonal ajrun wa miqdaaru dañoo fay suraaxata baaxata ne ko boo bëggee ñu jox la pàkk yi gën ci màkka jox la gëléem yi ëpp ci màkka jox la jigéen yi gën ci màkka waaye indil ñu rasulaahi wa amma ho bi jawaadin kayfoosa bi ma ñu jox ko fas fu gudd tër yi ak yool bu rëy ngir mu indi Moustapha yoxta min al ajri summa tirfu qaraaru pay gi ñu ko dig tax na ba saa bu demee ba dëkk ma rasulaahi summa tirfu qaraaru tànki fas yu day nuur ci biir suuf ndax man ta yegg ci rasulaahi waxaadal barra maraatin liyoon xisawa wa ahadal barra nee na daalante na ak yonte bi ne ko ba sama fas yu génne ci suuf si ma delluwaat màkk ndax yow doo ko prisonnier bu ñuy jàpp di la yóbbu xataa yatuuba liman li zan bi xafaaru saa bu Moustapha ñaanee ba fas yu génn bu doxee juróom-ñaari jeegu dellu siwaat bëgg jàpp rasulaay fas yu nuuraat ci biir suuf waxiina absaru sidiqu sa sarayin waaye nag nee na Babacar Sidiq gis na noonu yàlla bi jëm si ci ñoom waaye keroog am na njàqare moom Babacar Siddiq wa taxta shayzam bi sawi faraaru nee na ndax nekk nañ ci barab boo xam ne li leen aar bariwul te kattan gi bariwul te ñoom ñaar dong ñoo ne ci ay juy tayit te kàccoor bii mën leen a jàpp yóbbu leen waat màkkatal mukarrama wa laysa indahuma xayrul xafiisi la wa laysa indahuma nee na amul kenn ku leen wétal lu dul xayrul xafiis yàlla miy wottu kay moo leen wottu xaalal mukarram laa tahzan laa tahzan liman jaaru xam nga mukarram rasulullahi lay jublu moo ne Moustapha laa tahzan bul tiit bul jàq sun borom moo nuy wattu moo nuy aar fasaara yu raabi saani isnayni xiinawma keroog lañ ko tuddee saanil isnayni moom Abubakar ni Siddiq nas ju nee na lenn rek moo doon seen kiiraay nee na mooy nen yoo xam ne petax moo ko nen nee na ak néeg boo xam ne jargoñ moo ko def ca buntu xuntuma wa fi fadaili ayun mufassalatun am na ci ay ngëneel ngëneel yu taxale ko moom Abubakar ne Siddiq xadun silat wa ahadithun wa axbaaru alxuraan wàcc na dëggal Abubakar ne Siddiq xadis ñëw na dëggal Abubakar ne Siddiq xibaar ñëw na dëggal Abubakar ne Siddiq wasa nabiya bi ok waasaa jox na annabi yonent bi bi am walin alal wa an ka xoo may ko doomam moom Babacar Siddiq bintal walam yara xam nga Aïcha doomu Aboubacar ni Siddiq la waaye nee na masta dengi dengi ci ak gëmam moom Aboubacar ni Siddiq lam yasal bi xam lam yasjud ilaa sanamin lam yasrabil xamra masta naan sàngara lam yasjud ilaa sanamin masta sujjóotal xërëm sunu de wal waalidaani ma awlaadil ay waajuram dañoo baax ñi génn ci moom di ay doom dañoo baax moom Abubakar ne siita sunu waa ji amma abu xafsin faaroxu sayyiduna abu xafsu doom la ci Omar ibnul Xattaab mooy may na doom rasulilaay muy soxnaam okay. la yarta bu daya ay ngeeneelam rëy na massa dengi dengi Abu Abubakar ni seex na nga ne lan wax wal mutimu zawil islam yawma khada miman, man mi man nee na l'islam bañ dee 39 Omar moo ñëw mu doon 40 sina Omar mi bi kaana lil islam izhar ba mu dikkee nag ne lépp leer moom sina Omar doon ndax moo taxale dëgg ak neen wala faraxa bi faaraaxu siiduna wallahu gin naa ci yàlla farraxa moo taxale moom Seydina Omar alxaq min baatilin dëgg ak neen alxaq min baatilin باطل أبرد فجار ويوم أسلما جبريل الأمين أدا mu màggal Seydina Omar nee na wa yow ma aslama Cheikh Ibra Fall lay wax nee na bi mu jébbaloo bi mu jébbaloo wa yow ma aslama jibril aminu ata nee na jibril ñëw ne ne ndikku ndey rasulaay ne ko ahlu sama ñu ngay maye feet ndax bëgg nañ jébbalu ko Omar gi tey bi isni man huwa fawqal kulli qahaar bi isni man huwa fawqal kulli qahaar ci ndigalul yàlla la yàlla décrété feet ca kaw malaaka yi feet ndax jébbalu Omar ci lislaam mualliman di xam le anna islam islam al fata omarin jébbalug islam ci omar mbég la busraali ahli sama wal kullu yaxtaar mbég la ci ñooñ asamaan wal kullu ñoom ñëpp ci asamaan ñu nga naan omar omar omar omar ca kaw asamaan bi tahazzaza awaay nga ne la waaye loolu neex na del delluwaat ci nga ne la bii taxasasa bii taxasasa ci barkeb Omar la l'islam puukare woote rëy diinu laay murtafian diine yàlla ji ci daraje Omar la kawe tahazzaza la fadaa ilala kalla tafka am na ngëneel yoo xam ne sax xel mënu koo takk moom Seydina Omar xadataba naasa turan nit ñëpp moo leen yar bil huda ci ak njub waxa daw ñu bil huda ci ak njub waxa daw jubbantiku nañ bi hadihi ci njubuk Omar wasi ismin lamsaaru nee na Omar moo leeral ngirum lislaam mi ni doxe wawa siraaju mooy yoon wa sax li ahlil fawsi ku mën a texe yaa ngi jaar ci daraja Omar eh eh, eh nee na Omar ci darajaam la ñun lislaam gindikoo alaquma Omarin fafarlu misaru alquran ñew da ba ne ya, rasulay yow ya, mi kat wax nga deug way Omar la jox deug man alquran wa min karamatihi bok na ci ay xarba xam mom sen Omar. bahzul Kitab ila nilin. mu bind xal san ko ci niil. tawaqafa sumal ma umidraru ndox ma nga xamanta gantulon ci barke xal Omar ndox ma dal di daw. amam lu afaana ay usman eh. sayyiduna ne na kon maa ngi ci kenen Sina usman lay bëgg wax dara jaam. faxaaloo fi bitafdili nee na ngëneelam bi dañ ko war di ko sina Osman. haza shahadata nee na kii moo shahid moom lañ rey ci lislaam wa sina Ousmane min rusuli khususatun wa israru ak ay secret sina Ousmane sina fajirin yaroo mu la woo bi mu joxee alalam ci yoonu yàlla Moustapha daa faran di ko ñaanal ba fajar mooy baata nabi ila fajirin yarumu lahu di ko sàkkul ngëneel lu bàyyi ko ci sunu borom mbaa yàlla ridan min alaayi sa taflilu kubaaru xaasabnatayhi moo làq ñaari doomi rasulillahi moom seen Usmaan wa ridwanan moom la yàlla gërëm wa maxfiratan mo la yàlla jigal seen Usmaan idha nuqat hutta ijhaarun wa israarun Usmaan amatul bàkkaar bu ndaw ak bu mag mbaa yàlla nañ ko topp nañ ko bàkkaar moom seen Usmaan wa fi xaala nabi yaa may bëgg a neex nag nee annabi rasulillahi nee nga moo xëy ba mu neex mu ne Ousmane am na dara ji jii may bëgg a wax. wa bi xaana bi Ousmane yasfaw fi. sab'ina alfan wa kulluhum xaqahu naaru. sab'ina alfan wa kulluhum xaqahu naaru. ngaa si dégg li Rasulullaay wax nee na Ousmane juróom-ñaar fukki junne yoo xam ne sunu borom àtt na leen bañ war a dem safara ëllëg dana leen doge ca safara yóbbu leen ca aljanna. moo am kersa ba malaayka yi sax dañoo mujj ruus Ousmane. wal musa. قدر بلق مصطفى صح دار السنا عثمان فله قدر أمنا درجة بل أقدر أمنا صح أي درجة وبالكرامات أنها سروت من تي أي كوتهم أنها ني وركو كتمون 49 جور يوم هل دار ظلم وصبار 49 جور لكل نان وهو صبار سنا عثمان دي أجمون صلى الله عليه الرحمن yawma xadaa nee na keroog ba ko ibnu muljam dóore jaasi joo xam ne dañ ko tooke malaaka yaa ko jullee alayhi wa xalati abdaaru axbaaru sutura sëñ Tuubaa neen moo tax mu ne xibaar yi ñu jot indi daal malaaka yi ñoo ko jullee bañ ko faate ndax faate ñu daa métti wa min xaariqihi 49 lañ gaw kër gi lekkul naanoon moog waa këram wa min xaariqi du soxna du doom du jarbaat du surga bu lekk baa nga naan wa min xaariqi am تمن انحاصره ني وور كو غاو كرغا 49 جور موي تمن ولا ومن خوارق انسان من دمه اوا جاس لاغا واخ نيهنا نينا بوك نا سي خرباخم انسان بامو داوي من دمه درتام جو تورو سي كامل بي على الكتاب لا في انسان ما دوك سيرن تبا مو واخ ام لا ني واخ ني درجه مو ماس القران سي وانا بوك نا سي اي خرباخ daraja tuuru na ca kaamil ba amam nu xami rasulilaay sayyiduna nee na bokk na nag ci ñoom rasulilaay kii may bëgg a wax sayyiduna sunu sang kan la zawjul faa wa muxtaaru zawjul batuuli mooy ki takk faanumatu bintu rasul lay wax lahu sajaatu mooy jàmbaar wal irfaanu moo bari xam-xam ma sharafin moo tedd wal xubbu moo am cofeel wal qurbu moo jege rasulay wal jaaru moom moo ko jege mooy wétti la moom Sina Omar baabul xulaami dama ne mooy buntu xam-xam yi سبتين nee na Sina Alin moo jur Asan ak Useynu fu mala xubal mala nee na jubug jàmm ci loo loosam la ko yàlla gàll wali xayril xalqi linsaaru waare gi daan jóge ci Moustapha nee na Sina Alin moo ko daan leeral loo axara rasulallaahi manzilatan moo gën a jege Moustapha ci ak mbokk manzilatan minu kaaruna min Muusaa la dun saaru wàccuwaay wi mu am ci Moustapha amul benn saxaa bu am ci diggam ak rasulilah nee na bokk na ci ak njàmbaaram an ma fanaan motta ji ande way soonu fooqal furaasi waxaw la daari makaaru ba mu gàddaayee dem madinatul munawwara nee na Sina Ousmane moo tëdd ci larub rasulillahi alay burdatu xayril xalqi mutaki aan man toog moom la sangoo soonu ci lal ba moo ca fanaan wala misibu minal makaari idra juróom fukki giir yi nga xam ne moo am ci ci màkka nee na giir yëpp ñoo wër kër gi ngir bëgg a rey rasulaay keroog makaw ni kulli haduwin baata yaxrusu juróom fukki giir bani abdou shams bani abdou kalb bani adnan bani quraysh euh, quraysh nee na ñoom ñëpp daje ngir bëgg faat rasulaay waaye sina alin keroog moo fanaan te lalub rasulaay wal musahanu minum kufata absa waaye Moustapha fekk booba dem na ca guddi a gëlëmal ba nee na moom nag moo wét moo moo moo fanaan ci lalu Moussa Moussa gàddaay ànd ak Aboubacar ni Siddiq liet falma yam xiixi man jaaru ñi beew bu bëggoon a ñëw faat Moussa keroog ci guddi gi jeex ne ne Sina Ousmane moo jël si Sina moo jël responsabilité bi waxinama xarajal muxtaar waajahum bi Moussa di génn keroog waajahum da dëgmal ñi weddi yàlla bi بقبضة من تراب والإداهار daa tibb ci suuf na yaasin wal quraanil hakiim balaay jamat mu ne nganam nganam tëf daa di koy sànni ñi gëm ñi gëm ñu weddi yàlla keroog dañoo gëlëm mu saa jog ci seen kaw dem. fadailu sahbi bi jalala jalaala nee na fadailu sax bi li saa fu sun borom jalla wa ala magna na kawe an hadiaka kala taxlaamu wa asto nee diko bind ci ay khalima ba diko bind ci ay satara sax sa ngeen li sahaba yi mënta nekk alifa saati turan bi ñi yàlla jox lamagn wu leer turan ñep manam bis sanaa madaxu nañ mustafa walaysa yurakum ak waa nee na ay kook kook ay kook mooy ay kaas manta tànk du si géej du ko wàññi dara sax. kaabul. kaabu tagg na rasulahi. waasaanu. xasan tagg na rasulahi. wal buusayri. Muhammadul Buusiri mi ñu way burdam tagg na rasulahi. xat bara. وكل سرا نور واسرار اي جمبار لا ني دي كين كو ne la nga way secret la ak i mbóot fa mablagul ilmi fi annawa bashar day talab xam-xam daal ñoom fa ñu yem mooy xam ne mbindeef la wa alla duna aqlun wa afkaaru waaye xel ak xalaat nag man ta dab daraje rasulillahi fala taqisa ba yàgg mu ne bu len tekkel yaa ngi may bëgg neex nak ibna abdullah bil fadala eh, nee na bu len tekkel doomi abdullah ji bil fadala ci gaay yu bax yi nee na lo hab ay bidiw lu mu leer leer yu fi hadana ko cinema sinimaaru wer wo xanjar lil musdaa khairu khalqillahi man xayru khairu khalqillahi man am na amna waccu way wo xamne ben jam amuko ci yalla law jeer kulal raha daaru buñ jëloon bindee fi teg ci balance Moustapha kott ci balance mu wat ñëpp moom Moustapha rama wara fadilin ngeen ngeen ngeen nee na ñee ne yàlla yi alwara bindee fi daw nañ sàkku ji ngeen fu ñu ko sàkku jee misrina la wal fadlu ah inda rasulillahi qaraaru delluwaatal ca raamal raamal wara nay raamal wara raamal wara nay la fadilin musrina ba mag ñi day yóotu curum ngëneel ba walfarlu inda rasulillahi xaraaru fekk na sëñ ba jël tëmbel ba kiltaaya day xilaa eh, ngëneel da doon garab gu sax fa yonen sax yuntulaa si yàggoon fa lool ba mel ni guy gu meññoon baslun wa baasun liman laanu waman jaaru ku dem rek dagg ne buy ne doy na laa min alxilmi maa lam yaxwi basharun ne doomu buy doo dëgg kenn wax na aw jinn aw malakun wa sadru misxaaru sëriñ bi ñëw jël tëmbel ba laay laay eh, eh. raamal waraa jañ waxoon ca raaya raamal waraa la fadlil musriina lahu fadlil musriina lahu sëriñ ba ñëw jël tëmbel ba wal fadlu inda rasulillahi xaraaru ngëneel da doon garab gu sax fa yonnen raawal wara nay la yàggoon fa lool ba mel ni guñ ko meññoon fadlil musriina lahu sëriñ bi ñëw jël tëmbel ba wal fadlu inda rasulillahi xaraaru ku ñëw di sàkkuwaat buy fa yonnen raamal wara nay la mu naan la dellul fa Cheikh Bamba mu moo jël tëmbel ba raamal la kon nag ndeke ngëneel da doon garab gu sax fa ba ñuy sàkku ngëneel digg digg reenum ngëneel mu ngi sax ci keppar gu rasulilaay wal fallu hind rasulilaay daw di wut ngëneel ndeke ngëneel mu ngi sax ci keppar yax wi basharun am na ci xam-xam minal ilmi ci xam-xam loo xam ne doomu aadama amu ko aw jinnun wala jinne aw malakun wala malayka wa sadru misxaaru dënnam ba mu ngay bëmb ak xam-xam loola da laay sirrun am na fa sun borom sekkare laayu taalifu sekkare ba kenn du ko xam العلم ربان وأخبار أي فور أكي بها ما تخول دب خم خم برسول الله فالخيث من سك بجود البارز خجل ناتو وامي لم بري بري نجنل مسامو كو أبو نجنل ولا يسوغا لخوف منه فرر نانا نانا جين جين أل بدي جوانا مسوا نانا داو نحر درجة رسول الله لا من الحلم ما لم يخوي جبل لول نحنا ما لول حالون كل له من الحلم أمنا أغلبت loo mi la xil ni yax wi jabalun dégg naa nee na am na ci ak lewet loo xam ne aw tund ni mën a yënga ba di yëngu mu saako gën a lewet laa xalasa fil baraya waawa sabaaru daje naag aw lor ci bindee fi waaye wax wa sabaaru teewul muy muñ inna rasula la sayfun yustadaa bihi Moustapha jaasi la yustadaa bihi ju ñuy nit loo ci dara jàmm la bala neexee mu xëndat nga ne jaasi ñaari la li kuli min jumlati la xaari martabatun ñi yàlla tànn kum tànn ku ne am nga martaba muxtaaru muxtaaru waaye Mamadul muxtaar daal muxtaaru mooy ab tànneef ci biiri tànneef yal na yàlla dolli ko tedd nga yàlla mi ko jiital ci lim sàkk musallimal tëb xamaa yaxwaa wa yaxtaaru tësalmal ci moom nam ko bëggee te tànn ko moom suñu borom waaliman bi ixtisaasin xat xawaw sharafan ak i ak i ñi làq ak tedd nga li annahum lil wara saadatul ahlul bayti nee na ñoo di ay sang ci bindee fi yàlla yi wasabil xurimal axraanum sabaqo ak saxaaba ya nga xam ne ñoo jëkk ci lu baax ñoom saxaabatu rasul isbaadum haajaro wal baadu lansaaru baxduhum lenn ci ñoom haajaro dañoo gàddaay wal baadu len la ci des lansaaru ñoo madina la lillaahi tanwiilu shafaahi lalan am nañ ay may ci seen borom yoo xam ne saafara na ay gàkk-gàkk isaayalal ku la atlaasul ak daaru seen daraja moo far ay nëx-nëx ak ay tilim-tilim بالنسخ للخلق والإيمان قد بلا بالنسخ للاي بير والإيمان أقم يلا لن دون لن دون باخي جبلو لن دون باخي بدي في يلا درا وخفض الذي أهلت كفار وخفض الذي أكسف الله من أهلت دون كو الكفار نيود يلا وصف الحلم دابا للجميع كما باخ أك لوet la يوم صحابة الرسول كما kaanu yu diimoona taqwan xaysuma daaru fuñ mës a jëm rek taqwan ragal yàlla xaysuma daaru fuñ jëm ragal yàlla lañ nekk laa siyamal xulafa sidiquma omarin nee na nag nee na rawatina Babacar Sidiq ak Sidna Omar عثمان وعلي نعم الأبرار عمر عثمان علي نعم بهنا أبرار غاي تدي عليهم دار رضوان الإلهي كما kon nag daanaka xasee dégg lee mu jeex nee na maa ngi leen di ñaanal ngërëmul yàlla ñoom saxaaba yi. hadi saraaro bi noorin min nuulan waaru ñii ñu amoon leer ku leeru seen leer nga leerloo. asrix li yàlla xal ba fal tadxulu maarifatan leeralal sama xol te dugal ci sekk rek xam-xam bu yàlla wal xaq wa sabu wal awla wal ijbaaru ak dëgg ak muñ ak jàmbaar xataaw faariqa afaalal muxabaqatan ba ma taxale ko afaalal ay jëf muxabaqatan jëf yu ñaaw maa talaasu mi ma yaxsa bil jaaru ak ciroo loo xam ne ku bëgg dëkkaale ak yow loolu lay ciroo wala koona xalal axdaa mutaliyan samay noon yàlla naa leen kawe man xaadima rasul xataa liyan xaarataxasaaru ba sunu borom may ma ay secret ak i mbóot ci darajee rasulullahi wa an akoona saydan ay naa doon ku texe man xaadim xaabidan tey jaamu yàlla abadan ba faw wa xaadiman doon ab xaadim xidmatan talla wa taxtaaru liggéey boo xam ne moom nga tànn te gërëm ko yaa rabbi ay waay yàlla ñaan naa la yaa rabbi ngi lay ya rabbi maa ngi lay ñaan man khadim salli halal muhtar warda bi yàlla nga julli ci mustafa warda bi te gërëm mustafa hanum rida allah wadul wa takraru ngërëm lo xama dang koy bamtu diko dawtal ci rasulay wa bi ya rabbi muhtar summa bi waaye may ma ci barke muhtar ak bihim barke sahaba yi allah xaalitama li durri jarar may ma lo xama aw lor man duma ci jëm man xaari mun sul ah, jass ya bax way waay Fall ah yow mii ah? maanaam maanaam man li ma gën a yéem mooy. Mhm. gis nga. xulafaaw raashidoon yi. Mhm. Ababacar Omar Ousmane Ali. koo ci tudd rek am na lu mu nuroog sunu waa ji. aywa boog. Fall xam nga maam Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina li tax mbiram riche. est-ce que man dama daan dégg maanaam baatu rijaalullaahi yàgg naa ko dégg waaye abu rijaalullaahi ci maam Cheikh Ibrahima laa ko déggee man mosuma dégg kuñ koy woowee ah noonu Baye Fall yi nag ay rijaal lañ waaye Cheikh Ibrahima aboo ba nag mooy Baye moo tax noonu ku ñuy woo Baye la ñuy woowe Baye Fall waaye maam Cheikh Ibra Fall. ñun ñëpp moo nu meññ ci baatin ñun Baye Fall yi. waaye nag mooy su moo meññ moo tax ku ñuy woo. ñun bàyyi nga ñuy woowee waaye kuy woo moom maam Cheikh Ibra Fall ba mu muri diina ngay wax. te li nga wax nii. dëggaluk Aboubacar Saddiq ga da koo jël. moom la amee ba luñ ko mas a wax ci sëñ Tuubaa mu ne noona la. dafa wax ne damay dégg sax ñuy nettali loolu waaye ñu koy nettali danoo juum. Hmm. dañoo wax ne dafa wax ne. alxuraan bu ñëwoon wuuteeg sëñ tubaa ma ne alxuraan a juum waaye sëñ tubaa du juum Cheikh Ibra waxut loolu dafa wax ne alxuraan bu ñëwoon wuuteeg sëriñ tubaa ma ne ña doon yaxanal alxuraan ji ñoo juum waaye yàlla wute wuuteeg sëriñ tubaa loolu mooy waxi Cheikh Ibra Fall moo gën a teggi waaw mooy waxi ni Cheikh Ibra Fall maanaam Cheikh Ibra li mu niroo rek sëriñ tubaa saa ñu la nettalee waxam nga am ci jeexi jaaxa waxu ko waaye bu ñu la ko nettalee rek day dëppoo akuk dëgg waaye li nga wax dafa am solo lool. waaw teggin teggin Cheikh Ibra dafa bari teggin maam Cheikh Ibra Fall Babul Muridiina te maa ngi lay wax benn mbir Seydina Alioune. coolee bari waaye ku ko gën a waggar muhammad rasulullah gën ko koo wekk amul dafa jël nag buntam bii sëriñ Touba jël wegeel gi mu amoon ci yonent bi ak waggar geek cofeel gi yëpp sotti ko ci sëriñ Touba ba doo gis cofeelam ci yonent bi waaye bëgg dëgg dëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bëgg sëriñ Touba ndax sëriñ Touba mooy xaadimu rasulullahi mooy koo xam ne boo ko woowee tudd nga yàlla tudd nga yonent bi ndax da nga ne xaadim ne rasulu ne laahi waaw moo loolu mooy sëriñ loolu tax sëñ euh, maam Cheikh Ibrahima nag dafa xam nu mu demee. moo tax mu ñëw rek seey ci Serigne Touba ba jeex tàkk. ndax Serigne Touba dégg naa sëñ Bay Jaxate wax ci wax ju doy waar. kenn du saw xeet yàllaa di saw xeet doo mën a tee doo ñàkk a wax ju doy waar a ngi noonu. waaw yàlla amul xeet di. sëñ Bay Jaxate ne ko nag yow kenn du saw xeet yàllaa di saw xeet doo mën a tee wéet doo ñàkk a wéet doo mën a tee wéet doo ñàkk a wéet nag wax ju sew la. doo mën a tee wéet mooy. ci yow la aajo yi jaam ñiy fajoo jaam ñi fu ñu toll di la sonal ngir seen aajo faju moo tax doo mën a téewéet doo ñàkk a téewéet nag càppaa coli nga ci mbindeefi yàlla yi ku wéet nga yow Serigne Touba ci mbindeefi yàlla yi ndax amoo ci morom da ngay saf ko teg téeméeri junni fi as mbarab te feeñal ci benn junni ñuy fas ne benn la bu dul woon sàgg nag ngëmme nag nelaw ak xaran sëriñ sipp booloo ñëw ne mbir yëpp leew na la ku not gaynde not segg ak mëfar dàq ñay mu daw du soo woo booy noppil te wey yàlla gis na la ku lay def moroom it xam ne xill na yaa ko man lewet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la sëriñ Touba <laughs> loolu la Cheikh Ibra lu Babul Muridina xam ba jël dëggalu Aboubacar Siddiq googi toppee ko sëriñ Touba moom maam Cheikh Ibra Fall Babul Muridina waaye boo gisee jomi Omar ja jom jom joo xamante nii ndax dañoo wax ne maam Cheikh Ibra dafa wax ne sëñ Tuubaa jébbal naa ko lépp ba mu des sama jom ak sama ngor jom ji laa koy toppee ngor gi laa nga ñëw euh, dañ koy kii rek dañ koy <laughs> jaar rek jàll ndax gars yi liñ fi wax ci lu neex dafa neex waaye maam Cheikh Ibra Fall Seydina Aline moo neex neex yi ci cofeel ci maam Cheikh Ibra Fall dégg nga neexitu neexitu cofeelu maam Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina ku ko dund. waaw bëgg maam Cheikh Ibra di ko dund sa xol. kenn mënu la koo wax ba nga xam ko. xanaa kay nga bëgg Cheikh Ibra ci sa xol di ko dund di yëg neexitu waaye du lu ñu mënoon misaal doomu aadama barke Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina. gis nga pour nga xam ne pour nga xam ne Cheikh Ibra dafa neex. boo bëggee ñu ne ngóor si jàmbaar la sax bala ngaa yaakaar ne jàmbaar nga dëgg faru faw nga ne barke Cheikh pour wane ne yow gentleman nga wax maanaam am yambar du waate Cheikh am yambar du waate Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina waate ko rek dafay wane ne jàmbaar nga mhm. waaye itam ku bëgg bayre wala nga bëgg ubbeeku fatxul kadir ku ko bëgg wala nga bëgg xabool ngir sunu borom nangul la saxal nag ci di liggéeyal Serigne Touba ak foo ma ci Cheikh Ibra ak foo mën a bokk del liggéeyal Cheikh Ibra ndax foo man mënti nekk di liggéeyal ka ngay liggéeyal ak loo ko man di liggéeyal sa liggéey amaana ñu nangu ko amaana ñu ñàkk ñàkk ko nangu waaye liggéeyu Cheikh Ibra Fall Babul Mouridine sëñ Tuubaa da koy nangu. maa la wax lii ah du ko gàntal mukk sëñ Cheikh. Mm-hmm. tubaarkalla loolu sëñ Fallu sëñ Fallu defoon ci addiyaam jooju moo jëloon sëñ Modou Aminta mm-hmm. waaw mm, million am yooyee dëgg la te boobu sëñ Saliou ngi fi mm-hmm. la sëñ Modou Aminta ko ci sëñ baa ngi fi di mu ne ko waaw xam naa ko jox naa ko addi yi ma ko jox yëpp Hmm. waaye xawma ba xam nangu na ko déet waaye xam naa ne lu jaar ci maam Cheikh Ibrahima Fall moom ñu nangu ko hmm. waaw Cheikh Ibrahima moom lu jaar ci moom sëñ bi nangu ko ndeysaan foofu benn sew sew rek fee am hmm. ndax xam nga dañoo wax ne muy niroog dëgg lool nag xaw ma dëgg la am déet ndax sa day tuxu te am nettali itam loo fekkewut dañ la ko nettali rek dañoo wax ne Cheikh Ibrahima Fall Baabul diina ci njaaram dafa indi balance teg dal di wax menn ma kaay tim balance bi di wax ba xam dina daanoom déet mu tim balance bi nan ko fal li man na yendo wax fanaane wax te du daanu mu ne ko tibbal suuf def ci mu tibb suuf def ci balance bi ne reng mu ne ko daw len jëfi dom waxi lalu mayewut ci lalu seigne Bamba dara ah lolou lolou loolu wér na <laughs> loolu lolou wér na ah, loolu li koy dëggal eh. taxanam moomee ya mu nekkon ba ñew fekk wa Mbàkke di jang alquran ja mm-hmm. Mm-hmm. te dencal ko ci ñaari jukkeem ya mm-hmm. ne ko mom de liggey bu réy bi mu indi ci keur gi day melni da xamut rek da jangut dal waye fi mom ko jang war a fara war farataal am njàng te moom liggéey rek la fi indi ndeke booba ñi jàng ba wannu leef mooy seen kilifa cim njàng jësbul murit moom boo ko yëree balaaxa ya mm. ak aruut ya ak mantiq ya ak bayaan ya mm. ak adab ya ak maani ya xam nga ne Cheikh Ibra Fall jàng na waaye lam leen wax mooy mm-hmm. dem leen liggéey li sëñ Bamba doom mm-hmm. waaye ñaari jukkeem yooyu dañ ko caa xasaloon ne ko boo ko jàngul mm-hmm. reer bii ñuy togg di kondi ci daara ji doo ci reer keroog ba ñu maasee àndandoo ñoom ñëpp takku Cheikh Ibrahima ni ci liggéeyam ban taaj bo bi ba mu song ko ñom ñepp maase gaw reer bi taxaw ne mom kat bu nu kenn kennee moonu man waye bu nu ko sotee noko man <laughs> waye def na fa defi xarbaax yoy yooyu beeku bee ko ca jëlee ndax da feranku lay ñaari tankam ya dal di yéeg ci kaw jawu ji boolee ndab li ndab li ci bopam da ko fekk ca kaw wax nañ ne biñ ngir wax ko bi waccel ni te ñew nu dem ci biir yow ci yalla lañ lay lekkale te ñom ci aw ñam lañ leen di regalé kon ji la mom Cheikh <laughs> damaa bëggoon. Mhm. maanaam sëñ Moussa mii ak sëñ Cheikh mu ndege. Mhm. wala sëñ Ndiassé rek xaw ma nu mu koy tolloowee daal. <laughs> waaw raaya bi raaya bi nga indi moom kéemaan la lool. <laughs> man moom da da koy jàng sëñ Moussa di ko firi may xam li si biir. maanaam di si yëg suñu waa ji. yëg Fawzeyni daal fi mu ne suñu yaram waa koy xeseen moom Fawzeyni dama bëggoon xam nga nag 15 minutes moo ñu dese yoo xam ne. ah dañ kaa yokk dañuy fanaan de ah, maa la wax li waaye nag sëñ seex de fanaan de laa bëggoon waaye sëñ Cheikh mi moo moo bëgg suba ñaar waaw wam nun alal ahli bi ma injaari maam daal yow xoolal loo si mos rek benn cinq minutes rek maanaam bu ko defee nag ñu waajal ko boo xamante ni daal day gën a day gën a kii Cheikh dañuy fanaan ah. waaw incha allah dañuy fanaan noo ngi noo ngi noo ngi noo ngi am mbégte lool ci waaye bi sëñ Ndiassé daane na léegi sëñ Ndiassé kawe na Serif bëgg na fanaan kan mën naa ne ndax ndax ndax xam nga ne. ju tuuti day yóbbu ju bari ja. Ah, xam nga seen saa nag techniciens yi moom nee nañ. Ah. seen xol ak seen xel yëpp fanaan na. <laughs> <laughs> kon bu ñu yemee deux heures sax fanaan na. service moom reer yi nga indi moo tax nii moom nee ñu nekkee sax suñu fanaanee yendu. <laughs> lay lay tubaarkàlla macha allah waaw. maam daal jukkil ñu lenn si Fawzeyni rek. incha allah waa sëñ Bada. sëñ Moussa xam naa maa ngi profité rek. di fàttali. Eh, ci bis bi ñu dugg nii. di ci fàttaliku maam Salihu Fall. Oh, di caatu maam Cheikh Ibra Fall. Eh, eh, waajuru sëñ Cheikh Ngounda Fall waajuru sëñ Cheikh Ngounda bokk ak sëñ Abdou Sakor ñaari waajur. bis ni tey jii la fi bàyyi woon. 1978. di ñaar fukki fan ci weeru koor. kon bu ko defee ñu ngi ci bis bi. di ko fàttaliku bu baax te di ko ñaanal suñu borom yokk ay leeram te dolli eh, ay mayam eh, yagal fi xalifaam bi ko fi nekkal njaboot yep muy seigne Cheikh ngunda na dama ni balama dugg ci mataw ah, so seen ay bayit Cheikh wax ne bu ko muy nelaw bu ko ah, ndax ci bir nelaw ya lay faje aajo ah, cey Cheikh Ibra Fall waaw maam Sali mu am ko nekk ndeysaan maam Sali ndeysaan Cheikh Ibra cat ma ndeysaan wajal ilahi maskani tuba abad wajal ilaahi yàlla nga def ñaaw sama borom maska nii sama dëkkuwaay tuuba abad ba faw mislasmia bi jaay xayri man abad na mel ni turanoom wacca aljanna moom tuuba wasalliyan alay afdalu salaat yàlla nga julli ci yont bi gën ji julli waali wa sahbi sawi silaat ak ñoñam ak i sahabam zawi silaat ñooy borom i jokk wa kullu man xaddamani aw zaara képp ku ma liggéeyal baa nga siyaare ma man xaadima rasul fa naji waxfir lahu aw zaara na nga ko xettali te jéggal ko aw zaara ay bakkaaram wa kullu man ahabani aw maala ku ma bëgg baa mu jàng jëm ci man xaadimu rasul ilayya farsuquhu dan aw maala na ko wërsëgal ak jub wërsëgal ko alal wa kullu man satamani aw laama ku ma ŋàññ nag baa mu bëgg maa yadd man xaadimu rasul fa hablo tawbata wastislaama may ko ak tuub ak jéggalu loolu mu wax te ñëw ci man fa kullu man asaa asannuhu biya ku xelam nak ci man khadim rasul fali yaxallib qalbuhu ya rabbi ya tàggatal xolam ba ba mu jublu ba man khadim rasul wal takfini aza jamil wa dugal def ni magal khadim rasul nak ma fagal lorub bi dee fi yow yàlla wal takfim aza aaya yaa rabbi amin te fe fegal ma seen lor fegal leen sama lor man xaadimu rasul wajal bina ya bina aafiya dagal defal sama tabax bi muy tabaxub jàmm yajuruni ila xuyurin saafiya jëme ma ci ay ngëneel yoo xam ne ngëneel yu sell la wajal bina ya bina ahilmi defal tabaxub tuuba bi bina ahilmi tabaxub xam-xam wa amali bi sunnatin wa hilmi ah, nee na delluwaatal ci bayir wi nga ne wa amali bi sunnatin wa hilmi ak jëfe sunna ak lewet jëm ci diine wajal binaa'iya binaa al ihtidaa defal sama tabax bi binaa al ihtidaa mooy tabaxub gindiku waltakfi anni kayda kulli si ihtidaa fegal ma no pexem képp ko xam ne amuk noonu waltakfini daara sa seytaani fegal ma yow yàlla diirub jamono asa seytaani pexem seytaani wa isbil baaxiina fil awtaani ak kuréelub seytaani ñi nga xam ne dañoo beew fegal ma leen waltakfi anni kulla saxsin lam yuri leen amin sëriñ fa ne na koo xam ne jublu ma bu ma jublu wajaaka fasifon sari an isyari nee na sunu borom wëlbati ko sari an gaaw mu jëm ci keneen ku dul man wal tasrifan jumlatama yufsidu an lépp luy yàq bu ma jublu man xam ne bu ma jublu sama ñoñ yadi an daari sari an ayswan moo xam ci sama loxo la jëm moo xam ci sama kër la jëm nee na wëlbatil mu jëm feneen wal tudxilil musliha fi yadi wa fi lu baax na tàbb ci sama xol tàbb ci sama kër man xaadim rasul daa naari wa sabitan bil haadil wafi tëngeeleel yooyu bu dikkee nag na sax ci barkeb rasulaay mooy haadil wafi wa ahli nii wa ahli man yuhiinu nii wa ahli nii nag may yëkkati wa ahli man yuhiinu nii yëkkati ku may dimbali man xaadim wal tag fi nii jumlata ma yuhiinu nii képp ku may rëtloo doxal sama diggante ak moom man xaadim rasul wa maskani sallim min al fujaari coow yi xew day wane na ne sëñ Tuubaa dëkkam bi moom sange wane moom xaadim wam nun ala ahli bima جاري نرى دك بيتو با ميل ندخ محمد داي باو نول اغ غونتا وجعلهم ربي منن معجلا دافكم ما مو خلا ملني صح منن معجلا اجنا جو تيو جالبتا منن معجلا اجنا جاني ني ديك نانا مثال مي مون مكو فيفي توبا يا يو يا خيوم كل يا يلا يا حي يا قي يا قيوم كل مجيب نغول ما أنت المجيب والكريم والخريب يا مجيب يا كريم يا خريب يا عجيزك ولما يا الله إليك وحدك فرج bàyyi naa ñëpp daw jëm ci yow kott yow yàlla fukun bi saaka xaa idi ila hudaak xaa idi ñoddi ma ila hudaaka ma takk ci sa njub gi wali yakun rabban waliyan wa nasi doonal sama bor doon sama kilifa te dimbali ma yow yàlla wali jamiil muslimin ya basir julit ñëpp nang leen aar sangi leen nangu sama ñaan man xaadim wa kasiran xayraati haasal baladi mbootum xasida gaa ngi noona wa kasiran nga baril xayraati haasal baral xéwali dëkk bii waris ko wal teg fii annaka di wërsëg wi na bari coono na jeex Touba watus bitan fii jamaatan tuqi corona moom yëg na loolu nee na def fa mbooloo moo xam ne dañuy taxawal julli asalaati xam si ban yaa hakim eh, Makka ak Madina ak Najaf ak Kuufa ak Bagdaad ak Yaman ak fu mu mënoon dañoo tëj sëñ wane ne sama jumaa ji bu mu tëjee wana jinaa min sarasa eh, sama dëkk baa nii nee na bi mu xewee 2019 ñëpp dañoo tëj seen i jàkk ak seen i jumaa sëñ Tuubaa sama jumaa bu mu tëj moom wasar xayrihi wa kulli fitani fitna bu mu tàbbi dëkk bi bu mu tàgg sama ñañ man xaadimu rasul ayu nasaraani ak ayu yahudi fegal ma ko wasarra iblis wa kulli si joor ak ayu iblis wa kulli si joor ak képp ku am ak coxor wal wa dajaali wa sodaani waaye ci nga seex loolu dama bëgg a joor joor wal wa dajaali ah. wa sodaani am na lu lan wa dajaali ak seytaane ak sudaani ak képp ku am tooke sunu borom musal ma ci tooke yi sarxi wal maxri bi wal bii daal waaw am na lu sama xel def nee nañ ku weex ak ku ñuul penku ak sow mosal ma ci seen ay wal jinni wa dajaali wa suudaani jinne ak seytaane ak masiixu dajal mosal ma ci seen pexe yow yàlla fii sarqi wal maxribi wal bii daani ci penku ak ci sow ku weexe ma ci ayam suñ fallu tin wasarama fil ardi turran wa samaa ay wone asamaan ak ay wone ci suuf yëpp musal nu ci yow yàlla ni leen amin min saayirin wa baatinin iktatama ci saayir ak ci baatin iktatama wala ay wu nëbb musal ñu ci yow yàlla moom yaa latiifu yaa karimu yaa jalil ñan naa la hamil jami ana bi lutfikal jami yow yaay latiifu na nga jëfandikoo ñun seen sutur wi latifu wa kullana xut li najaatin wa falah ñod ñu jëm ci ak tax ak mucc ak ngeenel wa wafiqanna li sawaabin wa salah jëm ñu ci aw ab yool ak ngeenel ak ay xewal wal tukhrina bi fihli ma ahbabta ta saxal ñu ci lépp gërëm jëf jo xamne dang ko gëreem yow yàlla wal tafina an fihli ma abghalta fagal nu jëf lo xamne dang ko sip yow yàlla wala takum mubtaliyan minna kenn ci teg ibtilaa mooy di ko ci ay balaa dëxlan bi maa lay sayutiixu xam ne boo nu tegee duñ ko àttan bul nu ko teg yow yàlla waaw la na tey siirawal neex na de nag nu may ak jàppandal te may nu mbir mu yëwén fii kil tayit daaray ni wan najaaha ci àddina ak ci àllaaxira wan najaaha ak mucc yàlla na ko am yàlla na dañ ciy dellu si waat bu baax sëñ di Cuun sëñ Bay di coon ñu ngi koy jaam bu baax a baax mudir nee na mooy siyaaral ma sama gars yi mudir nekkoon mu ngi leen di béggee bu wëree wëree wëree wax dëgg yàlla moom nag dina si am boo xamante ne day ñëw toog ni ah, kooku mën ta ñàkk mudir incha allah <laughs> di ziar bu baax Seydina Aline Thioune macha allah di jaan suñu borom defal ko taw feex bu wëree wër di ziar bu baax Serigne Ibrahima Gueye di ziar bu baax a baax Serigne Xaarim Ndiaye Kayaar sëñ Jile Abdoul Khadre Samb Baye Ndogg Mbuub sunu euh, nijaay Serigne Abdourahmane Ndaw ñu koy ziar waaye di beral ziar nag soxna euh, maam Assa Bakke waaye sëñ Assane euh, sëñ Assane sëñ Assane Mbaye maa ngi koy ziar bu baax a baax wallaay sëñ Xaadim Tuunit di ko ziar bu baax <laughs> maanaam fa daal nag moom daal su ma sajoon ñu dem ba fajar ah. waaye technicien yi xam naa ne reer bi xam nga tey dañ ni ma ne dese naa geneen waxtu ndogu. dañu eh. dañuy tëm ndox mi. waaw bu ko defee xaar say reer. ah waaw reer yi ñu fi moom. nañu wàcc ndax moo tax daal fi ne nii ba ba léegi ah, ñu ngi def siin a dem. tëm Thiès waaw di bu baax. ñu ko ah, sëñ Cheikh Kaolack laa war a xëy bu soobee yàlla. waaw sëñ Cheikh Ndiaye ñu ci waaw ah. pincum maam Cheikh Fall kër Cheikh Mounda. dem wuy di sëñ Cheikh Mounda waaye ñëw ñu jàngat alxuraan ji la ñuy wàcce yendoo sikru laa xasaay di ba ngoon. macha allah maam Saliou sunu mos. waaw waaw Cheikh xanaa kon nga tàggoo waale rek waajuram bu jigéen mooy taawu sëñ Abdoul Aziz Fall <laughs> waaw soxna Ndiaye waaw jërëjëf sëñ Bara ñu ngi tàggoo rek di bég lool di bég lool tey ñaan ci daraje guddi gi amiin képp koo xamante ni bii yaa ngi fi ak ngay teewlu ci jamono ji mhm. wala nga amoon yéene ji rek suñu borom defal la fajuk aajo tàbbal ñu tamit ci ngërëmi Cheikh Ibra yi nga xam ne mhm. ah sëñ Tuubaa gërëm na ko ba tey jataay yu mel nii man di am mu ciy joobe liggéeyam bi jëfam ju màgg ci di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér mhm. Cheikh Amadou Mbend ñaanal ko Serigne Cheikh Ngonda waaye di siyaare mbooleem fu njabootuk maam Cheikh Ibra nekk rek ndax liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal yàlla ci weeru koor yi ah ngërëm yi kenn xamul nu mu toll waaye yàlla na ko sotti ci réew mi mhm. tey rafet nañ njortu nag ni suñ boroom sotti na ko fi ndax xew-xew yii jàll lu ne lañ ci doon yaakaar mhm. waaye ku ne gis na ni sedd na guyu ba amee nuñ ko foogewuloon kon mhm. loolu ñaan yi la ak liggéey yu tedd yi nga xam ne liggéey nañ ko suñ réew mi am na yàlla defal ñëpp jàmm ak tawfeex siyaarawaat ñëpp jërëjëf di bëgg lol nak tay jii bax sunu mam Cheikh Ibrahima mais nga xamantene tay moy borom jotaay bi Cheikh neena mom joxna ko sama wal jom de jom ah. de sikker la ñuy dundee. mo ko gëj ñu ko àjjee Seydina Ousmane. Mm. sikker la ñuy dundee <laughs> ndok. foofu la bëgg ñu tejé Cheikh ibrahim la ilaha illallah. lo ngi ñew la ilaha illallah. Cheikh ibrahim la ilaha. kooku dama bëggoon yàgg njaase macha allah léegi nag ñi ngi ñi ngi santaat sunu borom bu baax a baax. Ah. di julli ci xayril xalqi sallallahu alayhi wa sallama. di jërëjëfal Serigne Touba tey gërëm sunu maam Cheikh Ibra Fall Babul Murid diina. ndax lépp moom la waaye xam naa Fawzeyni mii li ñu ciy wax xam naa man moo tax man bu may dugg Touba sama xol bi day sedd dugg waaye bu ma fay génn dafay mel ne sama kanam day xaw a ñagas waaw waaw sëñ Moustapha mbara damaa dégg mu wax euh, euh, bàyyi baara mbóoj uh-huh. mu nettali wax bu xoromu ndax deen dafa jóge fu mel ne Louga di ñëw tuubaa xam naa chauffeur bi xaw koo kii ndax waxtu waaw oto jafe woon na nee na bi laaj ko lu jéggi dayoo ca la mu waroon a paas bi mu ñëwee nag di ko jàmbat ci sëñ Moustapha Mbar naan ko chauffeur bi tey daf maa nax mu ne ko num la naxee sëñ Moustapha ne ko num la naxee mu ne ko waaye li ma fayeeku waruma ko woon a fayeeku mu ne ana fu jóge woon mu ne ko Louga foo jëm mu ne Touba mu daal ne ah mu fayeeku la lu ëpp mu ne waaw mu ne ko la ko jox doyut <laughs> foo jóge jëm si Touba luñ la fayeeku doyut waaye ki la génn Touba yóbbu la fere loo ko fay ëpp na <laughs> waaw kay doon la léegi nag ñu ngi santaat soxna yi nga xam ne ñoo doon taxawu ci xéewal yi ñu indi fii xéewal yi de bari na lool ajaratu Daaro Fall sama ajaratu bi ajeegul ak biige pata <laughs> biige pata tey dafa futteeku rek takk ndiggam ne mooy togg ñu meew gi nag ñaanalal ma ko bu baax baax bare déwén ci waxtu yi fekk mu am borom kër baax Baay kooku de na bàyyi faal yëglu rek dama koy tooñ <laughs> ak eh, di santaat bu baax a baax nag góor a Jóob mi nga xam ne moom a am njóobeen la nag man damay ragal mu wéet ak yëf yi foofu sax ak eh, mbooleem ña jàpp ca liggéey ba rek di ziar nag ku ñuy wax soxna bu Ba nekk fële ca Amérique ñi ngi koy ziar di ko ñaanal sunu borom dolli ko sutura ak tawféex bu baax a baax ku baax la ku am yitte ku amuk taalibe te lépp lu ñu nekk rek bu ko yëgee daf ciy tàbbal loxoom yal nañu yàlla defal tawféex defal nu sutura ñu ngi santaat waa plateau bi yëpp sëñ Jaase euh, sëñ euh, Sina Umar ñu ngi koy santaat baax Cheikh Moustapha euh, sant dañ gërëm Cheikh Ngunda ñëpp rek ak techniciens yi nag kër Mohamed jàmbaar la lool macha allah jàmbaar man de yàlla xam na ne sa sànniwuma xeer ñi ci des nag waaye mooy liggéey si fekk mu nekk ci technique bi sama xol day sedd lool <laughs> waaw macha allah yaa ngi wax soxna Bii Gere di yër sëñ Chérif yow moom bokkoo ci yow non Chérif ndaanaan la Chérif ndaanaan sëñ Moussa kaddu yooyu tàggoo suñu xool seddati na seddati na daal ndeysaan yow xam nga yow sama waay nga ndeysaan Omar yow bég naa lool waaw ci yow itam ndax sànq damaa bëggoon rek déglu la nga waxtaan ndax ni rek la maa ngi bég itam ci ñaari jëmm yi di sëñ Ndiassé moom sama xarit la sama soppe la waaw nit buy def lu baax da nga koy encouragé ñaanal ko jàmbaar la lool waaw te jàmbaar yar beeg teggin bi macha allah waaw dëgg yàlla moom waaw moom ni Cheikh mel rek ni la mel la te Cheikh du ànd ak ko bon mhm. waaw Cheikh Ngounda te nag ni nga koy gisee nit ku polyvalent la macha allah non Cheikh bu ñu la tegaloon tabale yi wala ñu tegal la xiin yi ah. tubarkalla xam nga ñaase dafa dafa dafa dafa dafa dafa ñaase dafa am éloquence. <laughs> macha loolu nag ak ndaanaan la. yàllaa koy bindaali nit. maa ngi ñaan ñoom ñaar ñi sëñ Raaya ak sëñ Fawseeni ñu ànd ca rawdu rasulillahi ba sallallahu alayhi wa sallam defale ko ko nii barki sëñ Tuba ca rawdu rasulillahi ba sa yéene rafet waaw yàlla na ngeen ko ànd amin doole Cheikh Ibrahima amin maa ngi koy dagaan yàlla ngeen ko ànd ñaan naa ko ci bés bii amin bés bii ñaar fi fani koor yi ñu ànd ca raw rawdu rasulillahi ba amin yaa rabbal ma ah dana am goog waaw nga baal ma Alioune maa ngi gërëm nag sama ñaari wëllëre waaw rek nga baal ma ah, muy ku ñuy wax oustaz euh, Moaz Fall Moaz bi ma yendu tey doon ko defal sama benn xarit euh, moom itam ab jàngalekat la ni man woo ne ma yaa ma ci doy muy Ahmed Dame Dramé ma Dramé dañoo mën alxuraan. <coughs> lool man man ma ci lay defal ma ko Mamadou drama nu koy jeex bu wëree ma ngi jaajeufal ñi ma ko àndaloon tey fii ci Liberté 5. ak Moaz Fall imam ñom ñep ñu ngi leen di jaajeufal nga bal ma mënuy ku ñu wax Seyna sambu di imam ci yoof mhm. ma ngi koy jaajeufal daf may top bu baax. Mhm. Euh, amna ku may wo léegi rek di jibi sey nan mo yoof kenn nelawul. ñep a ngi di la seetaan. kon yof ma ngi leen di nuyu di nuyu Cheikh Mansour Diouf. bu sama xarit Cheikh Mansour Diouf maa ngi koy nuyu. bu baax di ko ziyaara moom njabootam. di ko ndokkeel ci leetul xadar bin jëm moom itam. fas yéene ko ànd ak moom incha allah. di nuyu xarit yi ak wëllëre yi ak soppe yi caméraman yi. xam naa tey dañu amoon yéenay fanaan ba bët set. waaye nag daa mel ni daa yàkkamti. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Seydina ah, jërëjëf. bëgg nañ lool suñu xol sedd na. kon nu waajaat rek. waaw waaw. jëzbul murid incha allah jërëjëf sëñ Aline Badara noo ngi sant mbokk yi ñu bokkaloon plateau bi yëpp suñu kilifa xanaa rek nga may ma ma ziyaare ah, euh, nuyu mbokk yi ñu doon topp nga xam ne mooy euh, njabootuk daarul Quddus mhm. di ñaanal suñu wasila sëñ Moustapha Mohamed Mbacke Ndiagne mhm. borom niveau ji moom sëñ Mbacke sonaloo di ko ñaanal mu gudd fan loolu te wér borom axibaa il xadim li nusrati diinil qawim mhm. li mu naal yàlla na ko mott mottali barkeb daarul Quddus waaye di ñaanal alaaji sëriñ Mbacke géey mi jiite cheikh daarul Quddus ca ngàcc Gueye di doomi sëñ Mabey di leen siyaare bu baax ci ñaanuk sëñ Mabéye gi ñu jëm xam ne ñaar fukki fan ak juróom benn la ca ngàcc ci la sëñ Mabé dellu woon ci boromam. noo ngi koy noo ngi leen koy euh, fàttali bu baax a baax. di siyaar sëñ Mamour ture kennal borom Touba. Mm-hmm. surtout sëñ Aliou Touré barikàllaa. xam nga ne moom moo jaayante di defal seex yi sëñ Touba yëpp bis. 627 seex yi ñu xam. Ah. yëpp mu di leen defal bis ca Touba. di ko ànd ak mbooleem bokk yi ren nag sëñ ma ñaaw la ko tudde ak sëñ Mabé moo doon wax léegi. Mm-hmm. kon sëñ Mamour kennal yow ñu ngi lay nuyu bu baax baax di la siyaar di siyaar Abdul Wudoot moom it euh, bis boobee muy taxawu la kaat moom it ñu ngi ko ciy siyaare bu baax a baax di sant mboolem mbokk yi soxna kenn Fall ma ca Italie sunu yaay joojee nga xam ne ku baax la ci ñun ak soxna Mariama Konte ma ci Italie moom it ñu ngi koy ñaanal ñooñu ñu baax ci ñun lañ signalé wu ndax liggéey bii ñuy defal sëñ Touba di ci góorgóorloo kës néew boo ci amee ku mën a jàpp ci sa mbubb rek di la ca dimbali ci alalam mhm. ak di la ca dimbali ci xelam ak xalaatam kooku mënoo ko fay ndax kooku loolu encouragement la am na koo xam ne découragé mooy mooy yitteem ci yow waaye am na ko xam ne encouragé la mooy yitteem ci yow kon noo ngi nuyu bu baax a baax te di ko siyaare mhm. tey siyaar waa daaru nuuru daari ni ga ca Bambey di leen ndokkeel bu baax a baax di siyaar jëwriñ ya mënuñoo ñàkk siyaar sunu bàyyi Moodu Jaañ daarul xuddoos ndax li nu mel ak lii jot a feeñ ci ñun lépp mooma ab liggéeyam la digganteem ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma di siyaar mboolem bokk ya bàyyiwunu kenn te jéggulu signal yi noo ngi lay ñaanal bu baax di siyaar sëñ Njaase mhm. sëñ Cheikh Ngunda sëñ safaa sunu soppee sunu xol mu ngi tee ci yow taaba fu aadi fii kulli yawmin sunu xol daal mu ngi tee ci yow nu ngi lay ñaanal jàmm sëñ Cheikh Ndiaye Baye Fall noonu ak mboolem waa plateau bi sëñ Seynou ñu ngi lay saar baax jaañ mboolem techniciens yi jërëjëf sëñ Aliou jërëjëf lu tax ma moo ma ma mujjee sëñ Ndiaye sem yi macha allah maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax mooy li ma waxoon fii njëlbeen bi rek sëñ Cheikh moom xam na maak maag moom <laughs> lu yàgg la macha allah. xam naa nag kon yee nga doon kalaami moom da nga koy mujj bàyyi rek. waaw dama bëgg bu tàggoo bu bu ziare ñu muy ziar ba noppi. daal di daal di daal di daal di tëj jotaay bi si moo xam ab xasida wala rimal ñu sikkar moog sëñ Cheikh rek ñu daal di koy yéegee waaye balaa boobu. maanaam sama njaxas bii de boobu léegi mi ngi naa ma sa njaxas bi daa taaru kii nag murid bu ñuy wax euh, sëñ Xaadim Sow daaru njaxas fii si HLM moo moo moo moo mooy mooy def mooy def yu am ah mënut a ñàkk ca ne gis nga xam nga yow moom gis nga ni nga mel si baylaadi maanaam baylaadi daal nii la koy defee léeg-léeg sax mu def ko mu gën a fees waaye man maa taamu bii rek boo xamante ne xam nga bële baati nee na de waaye daal moom sëñ Xaadim Sow ñu ngi koy sant bu euh, mu ngi nekk fii ci HLM 5 euh, numéro am di 77 605 dix 20 10 77 605 20 10 ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne mu ngi koy def ah kay yow fa nga bokk fa nga bokk waaw ah. waaw wax leen ay wax ci ñun te loolu rëy na ci ñun moom koy ñaan bu baax a baax waaw sëñ sëñ Mohamed balaa ñuy tëj balaa may jox sëñ Ndiassé ngeen may ma rek ndax suñu borom it lañ naan euh, euh, la in shakartum la adidannakum yaakaar naa noonu lañ koy waxee Euh, sunu borom daf ma defal taw féex goo xamante ni. maa ngi ko ciy cant ca di leen ko seereel di ko seereel mbokk yi. ndax nag euh, may la doom ji jigéen ju mokkal alquran. ñu war kaa sargal ëllëg incha allah ca ca ca daadu cubbu jaxaay de loolu ñu ngi koy sant sunu borom bu wër di ñaan ngeen sante leen ñu ko. te ñaan sunu borom sàmm ko te def alquran si dënnam def ko njawoot yëpp. di sant bu baax soxna Soda Diop mu rabbiya mi nga xamante ni mooy borom daarul muuminaat yi foofee jàngal ko ba ba ba bu alxuraan nekk si dënnam kon sant nañ ko bu baax a baax aminu yaa rabbal alamin loolu moom ñu ngi koy sant suñu borom te di ko seeral mbokk yi wax dëgg yàlla sëñ Diassé kon xam naa ni nga ziar ñi ngay ziar te tëjal ñu jotaay bi suñu xol sedd na te ñu nag jël fay naa la sa bor waaye amel nga ba <laughs> waaw waaw waaw waaw kay waaw naa loolu <laughs> eh, ñoo ngi amaat mbégte bu baax a baax ci ci émission bi di leen santaat yéen suñu mag yu baax yi ñu bokkal jotaay bi wax dëgg yàlla ndax lu jiitu ñuy ñëw ci bërëb bi tey waxtu ne dañ daan topp émission ba bii weesu rek kër suñu Cheikh Mounda la ñu bàyyi daa di kii booba sax laa xaw laa xaw a xulóog moom ci yow waaw waaye xoolal ni ko suñu borom ma ñëw nga xoolawaat ak suñ <laughs> tubaab naan fii xabulu bi ñu suñu mag ji joxee ndigalal ñëw tey ji te don dama xulo won xulo bo xamni dama ni ko badres mu ma tay ji ndigal telephone la ma woo rek ni ma ñewal ñu dem ma ko acca xaw ma sax kon no koy ziar bax kon bobé nak dalay waat rek Cheikh. waaw yow mo no dama bay waat la. wallahi bi may alu Cheikh ni ma xam ko badre nak day nit ku bax ko xamni yoy sax du ko bayyi xel. ta waye loolu yalla xam da fiñ ci jëm nit koy lewet la di kula bi di ko amuk talibé wax dëgg yàlla ñoo ñaan. loolu de li ma la ci jot firnde. Mhm. sama nek ci jëmmam ji la jaar moom ba ma déggee bi ci beneen média may yëngu daf ne ma yow alali Cheikh Ibra nga ci làmp Fall nga war a liggéey wallaahi wallaahi loolu moom <laughs> nit ko baax la Cheikh Gueye sax bu ko seedee mm-hmm. ci keppaaru sëñ Cheikh Ngounda taxawaay ba mu faam jaadu na waaye ñun ñi ay gone fekk lépp mm-hmm. gis nii mu mel mësu koo changé buñ ko seedee dana gën a safe macha allah bis bi nag li ñu wax Cheikh Ibra Fall ji da cee wane boppam moom laa yoon sëñ Cheikh Ngounda xasida gi keroog dama am émission benn télé bu mag ni Cheikh yónnee may xasida ma xool ban laa ci jàng tey jii bi ma ibbiloo ma xool ban laay jàng daj bi zaadul musaafir gi ma ma bi may commencé damaa yéenoon jox ko Cheikh Ibra Fall bi ma nuppee gis ki ko bind def haddiyee ki ko bind def haddiyee maam Cheikh Ibrahima Fall ma koy woon suñu Cheikh Ngounda léegi kon noo ngi waaw waaw waaw kon baax kon sëñ Badara xam naa waxtu nañu waaye ñoo ngi ziar baax mhm. sama baay alaaj Njaase Njaay waaw raaya moom Serif Assane Fall moo ko tudde woon ñoo ñaan mu yàgg ci kanamu njaboot gépp ak suñu baay Ibrahima Njaay mi nga xam ne mooy suñu woy wayjur tudde ñu baay Njaase ñu bokk ndey ak baay ñoom ñaar wax dëgg yàlla li tax ma jiital ko mooy sama baay da ko jiital ci lu bëri moo tax ak sama yaay soxna seen sàmb sëriñ Leemu Njaay saaxibul asrar di suñu mag ñu ngi koy ziar bu baax di ziar sëriñ Omar Mbàkke xasida waaw wax dëgg yàlla sëñ Omar hmm. xasida di ko bëgg xasida moom boo ci yemee rek soxlawul ngay wax càllalem ndax xasida yi hmm. nim ci mel hmm. di ziar sëñ xaadim taal moom Cheikh Moussa Abdou Sakour di borom teranga ak Balla Joom taalibi sëñ maam Cheikh mu sëñ Modou Ablaye mu ngi topp jotaay bi maa koy ziar ah sama maam Moussa sek waaw maam am di nga xam ne fii bërëbam la maa koy ziar waaw ma ko jur sama wajur wu jigéen ñoo bokk ndey ak baay danga koy ñaan suñu borom guddal fanam bu baax a baax Euh, sëñ sëñ Aliou Badara waaye di yaa di ziar sëñ Laat Mbàkke sëñ Abdoulaat Mbàkke moom sañ Xaadim moom sañ Ibrahima Mbàkke nga xam ne mu ngi yëgal ñëpp màggalu sëñ Ibrahima Mbàkke moom sañ sëñ Touba buñ korité ba mu am 17 jours moo ko jox sëñ Cheikh Manda keroog muy jàng xasida këram waaw mën naa nekk maa ngi koy ziar baax a baax di ziar ñëpp rek xam naa waxtu bi moo ñu xoj. Ah. duñ mën a lim waaye. xanaa nga nga may ma ma ma dugal sama sama nijaay. Euh, Serigne Babacar Seye. moom mu ngi ca Touba ñu ngi koy ziar bu baax a baax di sunu nijaay di sunu xarit di sunu lépp rek. Serigne Babacar Seye maa ngi koy ziar bu baax a baax di <laughs> <laughs> xanaa kon nga tëjal ñu rek. Ah. waaw. Cheikh Rafal la ilaha illallah Fall. laay laay laa faal waaw eh, faal hoài Ibrahim Imam Laila شغف اليولان وراي فال يا دبا بابلولم فال سور مام سينجاي ايه لا إله إلا الله barke maam Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan est-ce que في الندى بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا